Olaf Bohamantane, man ça m'a étonné quand je vois euh, qu'elle s'exprime aussi bien en Wolof. Ndekete yo papa nek ci ginaaw wala señ modou xam naa ne. <laughs> Waaw ñoo ñeen ñooy yor kii bi te yor muk tol ki. Tol ki modou. Alors comme comme comme boobu nga ñu tànnal tey mu euh, révélation encore une fois euh, bu organisation bi di Human Rights Watch donc dañuy ñëw rek ak capitaine Jay, ci commentaire bi nga xamante ne lu mel ni boo ko déggee ci réew mi gannaaw ay jéego yoo xam ni su nekk suñu njiit dañuy wax ne ñu koy def ci. taxawaay ci wàllu xale yi te lu mel nii ñu koy dégg ne am na si réew mba ba léegi. lan la lay ah, def muy nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau di profité aussi di baalu ak jëpp di leen baal di ñaan yàlla mu def jàmm si Sénégal. donc effectivement daara tey man dama jàpp ne forme d' la woon. mun doon jël xale yóbbu ko daara muy dem di yalwaane dañ ko doon dugal si situation yoo xamante ni dañ koy jàngal moom si boppam mu bañ a rëy. Mm. moom si boppam mu bañ a yëg boppam. mu nekk nit koo xamante ni fépp foo ko dugal bu demee ba jaar si cycle de formation boobu fépp foo ko mënti yóbbu dina fa mën a nekk da gis xale bu nekk këram nekk ak papaam ak yaayam loo ko wax mu bañ loo togg mu ne buggul lool mais am na formation bu ñu lay defal tey am na yoo xamante ni yu bëri boo génnee ci biti kenn du la mën a këf te tamit foo nekk ak situation boo fa mënti nekkee kenn du la dégg. loolu du idéal parce que idéal bi loolu mooy à la base. loolu exactement nag loolu lañ dem tey ba tey pervertir ko en léegi ñi bëri ñi am daara di yalwaanloo ay xale c'est à but capital en fait voilà donc loolu moo indi situation yi yëpp di am ñuy hmm. dóor ay xale di leen mal maltraité di leen martyriser ba tey mu jur mu musiba yu mel nii mais lii nag nguur moo ci war a jóg parce que bu état jógee tey di wax ci yenn affaires yi ñu ne diine la ñuy xeex hmm. ça aussi c'est un problème donc am na yoo xam ne l'état doit prendre saa par le comme li ñuy wax prendre le taureau par les cornes am na yoo xam ne amul sentiment amul négociation

jaare la ko ci innocence xale yooyu nga xam ne xëy ñu ci ëpp mm. seen wéyjur seen loxo jotu seen ginnaaw cela ne veut pas dire que dama leen responsabilité tamit buñ fa taxee di ko situer xam nañ ko mais xam lan laay nekk di laaj man ñun li ñuy wax nii mais conseil ñëpp ko xam mais franchement saala biigi li ñuy wax nii ñëpp xam nañ ko xam nañ xale yi nekk ci ci bedd bi balaa nga leen nuyu loxo lañ leen njëkk a tàllal est-ce que loolu la ñu xamoon ça veut dire que derrière am na loo xam foog ñu yóbbu ko rapport yi ci enquête bi ñuy laaj ñaata lañ leen di laaj ñuy wax somme bi ñu yóbbu mais est-ce que taxaw nañ seetlu xool nañ xale yooyu conditions yi ñuy dundee ci mbedd bi xam nañ ko li ma bugg a wax foofu mooy lépp luy wane ni lii war naa jóge ci réew ñëpp ñi ko war a def constat bi def nañ ko liggéey yëpp a ngi fi Sénégal nee naa waratuñu sax def ay rapport bi ay nangam di wax ci amul xam nga li am mooy constat bi am na lan moo ci war kan moo ci am ëpp pour régler situation bi kan kan la xam nañ ko léegi bu ko deful lan la lan moo nekk ci ginnaaw xam nañ ko bu buñ ci jugul saafara ko lañ dañuy nekk éternellement di def ay constat ci loo xam te ne existé na xam nañ la ko war saafara def ñu ko mais nan ñu wax léegi lan la ñuy def ñun Sénégal léegi ñun dañuy continuer nii rek di ko moo xam ci accident tey ni ñu ko wax juróomi juróomi nit yu faatu woon gi dañuy waxaat même chose ñu waxoon dem te pourtant ay mesures yoo xam ne état bi jël na ko barki démb euh, boo demee ci lan pétrole la ñuy coow fii Sénégal jëlal fépp dañ koy coow te même chose lañ ci wax même constat lañ ci def te boo xoolee à longueur de journée li ma wax seetlu leen même nous édition édition yi def xam journal yi def lu ci ëpp à exception près ci télévision ay forum la ay colloque la ay. <laughs> d'accord da ngay dégg conclusion ci nangam nangam. recommandation wax yu rafet da nga problème am mais man en fait c'est une question nous xam may jaaxal chaque fois dañuy les mêmes choses même pratique yi fi changement du am Mhm. alors on a parlé de la responsabilité ñi nga xamante ne euh, dirigeant yi Fatima Mais am bien responsabilité mu euh, parents yi parce que tamit boo jëlee sa doom di ko dugal fenn naam bu fekkee ni da nga bëgg si moom euh, jàng te gis nga ni cadre bi n'est pas approprié loolu tamit beaucoup, ci li nga xamante ne na dalal xel mhm. te souvent dañuy gis ñoo xamante dañ naan graaw nañ ko bàyyi rek suñ demee sëriñ daara bi dana def si moom xam-xam mhm. donc loolu de wane ne rek responsabilité bi elle est partagée parce que parents yi ñom aussi foog ñu jël seen responsabilité mëno jur euh, sa dom ba paré après nga nga sanni ko noonu sanni la ko mën waxé parce que paraît-il amna ay parents yo xamantene sax dañuy dem ci ben daara joxé nonu xalé bi sëriñ bi euh, en retour xalé bi bu amé lu ko dal sax ñom ils ont du mal à trouver les parents duñu xam euh, ñaanati la kon mën nañu wax ne ne jur sanni la donc parents yi il faut que ñom également ñu xoolaat seen taxaway nekul ne pauvreté mom moy tax ñak moyen nga ne da ngay séparer wu ak sa ak sa doom euh, lu mu lu mu métti métti yow yaangi dundu kon tu peux faire pareil jël sa dom nga daal di teg sa wet gis nga li jëm ci question daara yi euh, da ngay sax ragala wax da ngay ragala wax <laughs> parce que à chaque fois suñ ko soulever rek da ngay gis après euh, dafa sëriñ ñi ñenn ñi dañuy juk commencer di comme ni ko waxé comme quoi que dañuy xex diiné mais nañu japp modernisation des daara. mais nañu nañu nañu jàpp ne xale yi ñuy sagané nous ngi ñu ngi leen di defuñu suñu parce que yi buñ bu defuñu si ñoom lu war mm, ça sera à revoir mm. donc dafa également war si jël parce que mënuñu à chaque fois di wax la même chose Nous, à chaque fois journaux yi buñ ci enquête ñu la même chose kon euh, wax bi kon ban njëriñ ban njëriñ la am. bu hmm. fekkee ne ne année bu jot bu ñu defee enquête même situation bi la ñuy def euh, sànq abi dafa wax comme quoi que ne ñi def enquête bi ñu ngi ñaan état bi mu jël ay euh, ay ay ay mesures. mais <laughs> duma wax sax ñaan mais ñaanati kay laay wax ñaanati ñaanati parce que ñun ñëpp xam nañ lan moo fi nekk mais dafa mel ne ku ci nekk après euh, situation bi dafa mel lu normal ci kanamu ci kanamu ñëpp donc euh, à la fin genre situation yi rek la ñuy mujjee la même chose donc daal euh, ku ci nekk war nga cee mën a dugal sa sa loxo que ça soit population bi ñoom aussi ñu ngi ci biir parce que ñun chaque fois aussi ñun ñooy dem ci ci ci xale yi di leen sarax ah parce que tey da ngay gis ne ne tey suñu suñu société bi nu mu nu mu bindoo am na ñoo xamante ne sax dañuy wax ne ne comme quoi que même bu ñu moderniser daara yi sarax rek xëy gis ñu capture ko comme si <laughs> dañuy wax ne ne wala même daara yi bu ñu leen moderniser euh, dootul amati yelwaankat ñoom seen jëm bopp yenn ñi si population bi dañuy wax comme quoi léegi ñoom naka la ñuy def pour joxeeti sen sen sarax genre question yu mel noonu donc euh, bo xolé sax di nga gis problème bi c'est beaucoup plus euh, profond mhm. nek na lu doy waar alors Moustapha rapport bi kii euh, délai bu mu joxé né période bobu lañ ko def 2018 la yam 2019 bi ñun dégg nañ fi ay fait yo xamante ba tay ci xalé yooyu la laal Sans maa ko wax abi bi ñu rédaction fu mel Mbour

parce que dañuy wax les responsabilités sont partagées mais buñ ko xamee ba paré def njàngat li am ay opération de retrait des enfants de la rue lu nekk wax nañ ko fi te ba légui muy am fan lañu wara xol man je pense que dañu raté on a raté le coche parce que déclic xam nga fan la nekkoon bi daara bu Médina bi také ba ay xalé dé calciné. je pense que lool mo warona a déclic neuf xalé moins de 10 ans ñu mort calciné loolu waroon na nekk loo xamante ni ca la ñu waroon déparé faj góom bi mu wër ba. premier ministre Abdoul Mbaye demoon voilà mu déplacé wu avec tout son gouvernement médias yi di ko wax pendant presque un mois on a. vie ñu fexe jël loolu comme exemple ba lu mel ni dootu fi am mais man dama jàpp dafa am benn business boo xam dafa am entre les parents et les marabouts parce que business bi mooy lan yenn parents yi dañuy indi il tourne le dos. ils font dañuy disparaître dootoo leen gisaat marabu yi dañuy encaisser mais derrière ils te disent ne il faut ñu entretenir xale yi te parents xale yi defuñu dara mais yow en tant que marabu su la leeree ne mënuloo entretenir xale yi ngay jël mais ne les pas parent bu indi xaleem mais delloo ko man xam naa daara yoo xamante ne boo ñëwee di fa indi sa doom da ngay bàyyi sa photocopie carte d'identité da ngay bàyyi sa certificat de résidence bàyyi sa numéro de téléphone bàyyi sa lépp ko yére yu set indil ko suukar ko ceeb indil ko de telle sorte que xale

parce que boo ñëwee rengaine bi ñu lay servir mooy lan dañ jug pour xeex diine ñu ñëpp ay nitu diine lañ mais xam ne loolu jugul pour xeex diine parce que diine amul fenn fu ñu wax ne nañu exploité xale yi diine moom moo njëkk aar xale boo demee ci juif yi dañuy aar xale boo demee ci christian bi ñu aar xale bi yonente salaa salaam ñëwee li njëkk def mooy nu ñuy aaree xale yi ak jigéen ñi kon yaakaar naa foofu moom ñun ñëpp ci d'accord diine yëpp teg ay mesures yoo xamante ne da koy respecté respecté lu ko ku ci mënta jaar mais yoon daal sa kaw quitte à ce que ñu ne day xeex diina sax man d' accord naa ci système boobu noonu. mais Aram est ce que pour toj xol il faut que nga yelwaanoo xale bi. non non en fait c' est juste une façon de parler benn solution bu rek non non non non bu ñu ko waxee noonu en fait c' est juste une façon de parler c' est à dire tey jii nii ki nga xamante ne dem na yelwaani ki nga xamante ne lekk na ci pot et tout ça day nekk nit koo xamante ne day yaatu. kii il a fait l'armée militaire la xam limay wax tay jii nii boo ñëwee nekk un diplômé ñu solo la short war la ndel bu set wecc jigéen taxaw ne la bërëngul nga bërëngu juk taxaw da ngay ben instant dara dot la saf nga ñëw ki am 19 ans ki am 27 ans ki am 50 ans yéen ñëpp ngeen simeeku sangundoo ci ben douche da ngay ben instant yu ci bari ci aduna dootu la déranger dootu la saf c'est-à-dire tu deviens une personne facile à vivre ba noppi tant qu'on est comme ça yu ci bari da nga koy mën accepter da nga koy mën intégrer ci sa vécu da nga koy mën da ngay mën composer ak nit ñu bari sens boobu lañuy waxé waxee quoi c'est-à-dire genre busitage ce n'est pas seulement yelwaan bi amna na yeneen forme d'éducation yo xamante leneen mi ngi am ci daara bi yalwaan bi façon de parler la rek peut-être que tamit c'est pas adaptable pour certaines communes mooy kan daara boobu ñuy wax dee xeex vraiment cest à ki dafa am ñaar yoo xamante ne waruñu ko boole gisuma fenn fédération bi ëmb ñi yëngat ci wàllu daara ñu ko bañ moo se rappelle bi ñuy dugal loi bi pour ñu am seen statut dañ ko gunge woon. projet de modernisation des daara am na ñoo xamante projet bi gëmuñu ko woon au part dañu dem ba bi mujjante bi gis na njëriñ la ils ont demandé à ce que président au moins loolu ñu jot ci. Mm. fii am na ci ay daara yoo xam ne ay daara moderne yoo xamante ne dindiwul quintessence su daara la mu doonoon. Mm. mais boole nañ ci jamono parce que xam nañ ñaar yooyu ñoo ànd. Mm. kon nag nañu identifier kooku ñuy wax naan sëriñu du sëriñ xam nga fi Sénégal dañuy ñëw rek ñoom mara bu rek boole ñëpp nangam. Hmm. alors ko dafa am non il faut ñu def. non mais dans tout secteur également am na ni dafa sol dafa mel ni lu sol mbubu mi doonu ko li ko intéressé. Hmm. mooy xale yi lañ may indil. deful ci seen bopp dara. li ñuy wax naan formation pour ñu doon ñoo xamante ne dañuy tàggu rek nangam xamu ci la ndox moom doonu ko. mu mbubboo mbubu boobu di dox mel ni waajooju rek dajeeg waa ji gis ko mu sol dara ju rëy téye kaala yor bant. mu ne ko sant naa yàlla ndax la may wër ay at ngi nii waxoon nañ ma dinaa daje ak waaja mu ne ko ah noonu yaakaar ne man maa mën a tontu sa laaj mu ko ah damaa gis nga sol kaala gu kenn sol yor eh, kaan bu kenn yoru sol eh, ñetti abdu boo xam te ne kenn kenn solu ko ma jàpp ni nag war nga am fee tontu lu kenn tontu mu ne ko ah mu ne ko waa ji summi daara eh, daraam ji solal ko jël kaala gi jox ko jël yëpp solo ko ne ko tontu sa bopp. xam nga loolu moo lay wan ak la la ñuy du benn moo tax ma <laughs> kooku ñuy woowee waa euh, sëriñ daal alors que doonu ko. d'accord on fausse. c'est ça nga dañuy wax sax euh, góor bu deful daara demul armée jàngul métier tukkiwul. ku xuloog moom yaa ko tooñ. parce que formation yi góor daf ci war a am benn boo mënul am yëpp amal benn bi. bu la yàlla dimbalee nag am yëpp moom da ngay doon nit nit ku nit ku way nit ku way mooy nit koo xam ni eh, foo dem mën nga faa dëkk dañaan diw de mën na dëkk ak jaan ci pax maanaam du jaan mais mën ngaa dëkk ak sa noon sax te doo joteek moom loolu mooy nit mën na dëkk ak jaan pax loolu nag tàggat la mais daara daara yi doon baax démb ba tey ñi ngi baax hmm. buñ ne kokki mooy premier daara bi njëkk ci réew mi am na fi tey ay ay kilifa yu mag a mag a mag daaray kokki lañ jóge ay 1930 la. buñ ne xel koom daari Serigne Saliou xoolal ñu génnee ci Serigne Saliou ñëpp tubaarkàlla macha allah ku ci nekk ci la ngay yëngu yaa ngi ci jàmbaar nga ci. ñu fi génne ñëpp nag même ci xale yi mujjee génne nii koo ci gis am na yar bu nekk ci moom am na fula ju nekk ñoom fay dañ nangoo liggéey gu nekk ci ak taalibe gu nekk ci ñoom xam nga nag ni ma koy waxee toujours. bëy bu euh, bukki bu sàngoo deru bëy ah. dafay tromper lu bari métier moo gis am na ñu ci jóom mm-hmm. am na ñoo xam ne ay chasseur de prime lañ dañuy dëkk ngaay meexe ngaay laa sañoo parce que fa dëkk <laughs> mooy su ma dëkk maam jàngoo sax xaala balaa ka seeram yàlla nga ñëw ndakaaru pour wut si boo ñëwee dugg ci benn kër bi pareegul amagoo nooy def nga génn commencé teg ci buntu kër yi génn sa kaamil alxuraan xamoo ci mbind ma dara mbind mi li muy ñuul ñuul xawma ci dara mbind mi li muy ñuul ñuul xawma ci dara loolu rek nga xam ñu ne ñaari fan ñetti fan nga ne damay jàngal alxuraan ñu gurgur xale yi ci koñ bi indil la noonu lay démarré de hmm. commencé alifun baa baa un xaalifu baa xale bi dina fa nekk fukki at ak juróom alifun baa un ko weesu hmm. noonu buy ñëw bu demee dëkk ba bi am na ñoo xam ni xam nga sam papa daf daan wax naan nit ki lu sa pooc lax lax lax mën nga ci uuf sa doom parce que mënuma comprendre sa doom nga jur ko daw responsabilité mënuma dundal sama doom nga joxe ko da nga mën a dundal sa bopp. Mm-hmm. yow li ngay lekk na ci sa doom ci lekk fi ngay tëdd na fa sa doom ci tëdd. xale boobu sàkkuwul pour nga jur ko yow sàkkuwul pour jur ko yàlla la ko jox. Mm-hmm. te yow xaal jaar nga ci xale koo gi jaar na ci xale. Mm. ñu entretenir la ba nga nekk nit. yow yàlla jox la doom nga ne doom ji daal man mënuma ko kii naa ko joxe. Mm. jox ko koo xam ne xamoo sax fu mu jëm ak jëm moom fu mel ni Ndakaaru dëkk dox daje xamoo ci yenn condition lay kii mu ñëw xale boobu xamoo ci fi muy tëdd feebar ñàkk toroxal xale boobu xale boobu laa bu màggee ci loolu sax du xam lu baax du am xam-xam du jàng alxuraan bokk na si ñi encouragé sax ñiy daw si di fugee ci daara yi foofu laa jëmoon xale bu ñuy mujj enfant de la rue lay doon taxawaalu bu xale yi nga xam ne ñu ngi ci daara yi nga xam ne sax ñi ngi leen di jàngal bu ñu génnee mu raaxaloog ñoom yor seen repot di commencé di sàcc ñii dem ci commencé marché yi di yenn waan parce que versement lañ leen di laaj. Hmm. ñii sax dañoo wax cent franc ak ak ak. mille deux cent cinquante am na ñoo xam ne gis naa xale boo xam dama ko laaj benn mu ne ma sept cent franc lañ may laaj xale bi amagul douze ans. Hmm. mu ne sept cent franc lañ koy sas par jour bu ñu leen joxee suukar wala ceeb dañuy dem jaayi ko donc liñ ci mën a wax lépp daal bari na parce que wax na noo wax a wax a wax a wax ñun ba xamatuñu lu ñuy hmm. wax xale daal moomi ni yàlla la ku ko teral yàlla teral la. ku toroxal xale yàlla toroxal la parce que xale ah mu mujjee doon mag de te xale moom booy labal labalal xale keroog wax naa ko fi ngeen ree bande yu màgget yi ngeen gi seeni bañ dañ lu ko dindi bi ñu nekkee xale bande yu ndaw yi ñu doon noggatu bande yu ndaw dañuy màgg ñoom ñuy màgget band bu mag ndaw bu ci gis bu màgg bu dajee bande bi xam si bi defoon na ko dee dasal dindi bañ yi day fayu bande bu mag boo gis bande bu ndaw la woon moo tax xale boo koy lebal lebal ko lu baax léeg-léeg xale yoo xam dinañ fa yow xale yow kili ma ngi la njëkk may taral may la xaalis wala may dara doo ko fàtte la nga naan su ma liggéey di naa ko defal nangam mag bi la musa toroxal boo gisee doo ko fàtte la mu la defar la sa xel dem moo tax ñu ne booy lebal lebalal xale booy taral taralal mag xale dañ koy taral xam yi ñu jeexal ak waaw man fi may tëjee aram rapport bi bëggoon naa xale yi nga xamante ne interrogé nañ leen si huit régions yi xale bu ne tamit ñu laaj la fan nga jóge gis nga taalibe yu bëri tey boo mën naa bu doy pari la sax mën naa sañ parier boo tegee dix xale xale bu ne buy yelwaat nga ne ko foo jóge cinq yi dinañ ne la Guinée Bissau yeneen kaat yi ne la beneen dëkk ci sous région bi aspect boobu dañ koy fàtte ñoom ñëpp duñu ay sénégalais ñoom ñëpp aussi duñ ay Dakar waa mhm. xale yi ci sous région bi la ëpp ñuy jóge di ñëw fii parce que lan Sénégal yelwaan dafay dox. même bu dul taalibe ay mag yi jëmm ñooy jóge fu ne ñëw fii toog di yelwaan koor gi jumaa yi day fees dell trottoir yi day fees dell ville boo demee yelwaankat boo gis laa waxal olof des fois mënulaa waxal sax sa làkk bi ñuy làkk ci Sénégal je rien contre nag ñoom wax dëgg yàlla mais tamit booy wax fee dangay wax fee boo xamante ne mooy fee bu réel xale yi ñuy coow yi yëpp ak lu ci ëpp ci sëriñ yi yëpp boo xoolee ba ci biir enquête duñu ay sénégalais loolu fii laa ko waxee ci télé ba ci biir ñu ay sénégalais dëkkuñu Sénégal dañuy indi ay xale yeneen di dëkk indi leen fii di leen commerce loo ndax xale boo ci wax déggul olof beneen làkk la lay làkk des fois sax nga dégg pël comme pël mooy làkk bu gën a euh, bëri si kii nga xam ni nga xam ne kii benn benn pulaar lay wax mais du pulaaru Sénégal du pulaaru sax Guinée parfois beneen façon pulaar lay wax pour te dire que nekkul ni xale yi nekkul ni Sénégal lañ dëkk nañuy de seen rapport yi nañ ciy def aspect boobu parce que dafa am solo. Mhm. loolu nag day indi problème sécurité ci suñu frontières yi. xëy na capitaine après dina gën a approfondir loolu suñu frontières yi nan la ñuy def nit yi di dugg di génn. nan la ñuy def bay dugg di génn. am na chaque fois ñu ne xale yi dañ leen di dugal fii di leen indi fii pour ñu yelwaan pour ñu ànd ak ci pesaale suñu ñële ko dañuy xool kër gu pareegul. ñu jël dugal ko ci wala sëriñ bi teg ko fa euh, euh, euh, incendie yi am wala dal yi daanu parce que dëkkuñu si ay conditions yu baax xale bi bu ñu la wanee fu muy fanaan da ngay tiit xale bi doo xam yaayam doo xam papaam gis nga daara yi nekk ci Sénégal. damay jël exemple mooy chiffre yi nga xamante ne ay daara exemple ci Fuuta euh, bi nga xamante ne fa dëkk. Père Sala wax na léegi ne kokki Fuuta bi nga xamante ne fa dëkk peut-être que am na ay frères yi fa jàngee ku fa génnee ci daara tey cadre nga. Ah, tey sa waajur ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. te daara nga def am nga yaru aduna xam nga jamaan mën nga liggéey mën nga teral sa bop ñi xow jema def la part des choses des fois nak lolu moy metti sëriñ si ndax ñom dañuy def seen liggéey nu mu waree di jàngale alcorane bi yalla wax nañ ko am ñeneen ñu tapi dans l'ombre jugé fenen fudul réew mi di takal seen liggéey di wut xaliss mais buñu bëggé contrôler wala bëgg a mandicité lolu lañuy ñëk ñuy ñi di jox ci fi te dëkkuñu fi xamuñu fuñ bayé ko mhm. merci beaucoup euh, Habi ñu euh, jéem a encore une fois parce que yaakaar naa comme on a eu à le faire euh, ci sujet bi bëri na lu ñu wax xam journée de l'enfant ak yi nga xamante ni tout tudd nañ ko chaque fois suñu déggee rek n'a am na yu mel nii dañ koy faral di décrier encore une fois di rappeler rek ndax comme li nga wax sànq yaakaar naa ne kilifa yi ñoo ñu gën a xam li nga xamante ne moo di enjeu yi ak it li nekk ci suuf yëpp léegi ñu jàll ci Pape Ousmane ak invité. alors Pape Ousmane certainement depuis que mu xamee ne ba pétrole ce c'est pas parce que gisaguñ ko contrat yi buñ ko signé rek commencé nañ cee lekk xaalis bàyyeegul pétrole bi ndax ba léegi yaa ngi ci. waaw Pape ñu les enjeux sécuritaires.

am tuuti ki euh, libi mom waxatuñ ko déjà Mali bi ñu jege information diggante dogon yé rek on se rappelle mars li fa xéwon ak barki démb ni réellement euh, système euh, manam walu aspect sécurité bi mo faillir wala cause yi dañ ko wara dem séti leneen ci feneen. waaw effectivement parce que amna naa yow yaa ngi may posé question fi Mali. Mm. mais tay man dama japp ne ciow dañuy ciow ci télé yi. Père Sall mu ne Sénégal tey yàlla dafa ñu séddee coow. su ko waxee mën nañu reetaan mais loolu moo am parce que kat. Mali bi yi nii Mali wax na Mali wax Moyen-Orient wax fépp loolu yëpp géopolitique la tey boo xoolee pétrole bu ñuy coow nii xoolal débat yëpp si ñetti fànn kese la ñuy wax aspect financier parce que xaalis bi dafa bëri. nous sommes un pays pauvre. deuxième point bi ñuy xool dëgg fan la féete. troisième point bi ñuy jéem a tuumaal nit alors que lii dafa mel ni nga wax benn yoo par rapport ak situation boo xam ne moo gën a rëy àdduna bi loolu mooy problème bi gis nga français yi bi ñuy intervenir di bloquer jihadistes yi Mali xam nga français yi lañ leen doon sauvegarder seen i point stratégique parce que bu ñu leen bàyyi woon Dakar la ñuy egsi te kenn du leen téye te bu ñu ba Dakar dinañu mettre en cause beaucoup d' intérêt yoo xam ne tubaab yi ñoo ko. mooy force Barkhane yooyu ñu tudd. di wax exactement yooyu yooyu yëpp du dara. mais force onusienne yi nag. ay dil la seen biir. moo tax tey ma ne pétrole bii nii liñ ci war a wax nit ñi pour ñu xam ko waxaguñ leen ko en vérité. Hmm. parce que tey bu ñu ñëwee vingt et unième siècle pétrole bi mooy l' enjeu planétaire du vingt et unième siècle donc ça veut dire quoi tey énergie bi état yi di utiliser quarante pour cent yi si exploitation bu pétrole bii la jógee donc ñi nga xamante ne ñooy exploiter pétrole boobu nekk ay firme internationale yoo xam ne entre guillemets côté en bourse da ngay dégg ñu hmm. ñuy wax côté en bourse hmm. mais dañu wax côté en bourse mooy lan. côté en bourse ay entreprise yu am doole la yoo xam ne état yi ŋànk àdduna bi ñoo nekk seen ginnaaw tey boo déggee BBC dégg BP dégg ay Cosmos mais ñooñu bu ay sénégalais seeni réew ñoo leen gemb mais écran lañ leen di def nii ngay dégg BBC donc gis nga firme yooyu noonu dañu am accès si levée de capitaux. kon na nga bokk ci yaakaar ne BBC bi dafa am deal ci suuf. gis nga lii bu ñu toppee enquête bi. Hmm. ñu bàyyi juridiction yi ñu def seen liggéey. Hmm. wallahi di am ay surprise yoo xamante ne da ngaa déedéet. ñi ñu tudd nii loo ci lamb ba daj ko am na leneen lu gën a compliqué lu nekk si suuf. loo xam ne xëy na dañuy dépassé. ñu moo tax côté hmm. en bourse boobu am solo. donc ñooñu yow Paa Ousmane da ñëw ne ma jox ma 200 milliards. soo ma ko joxee soo domaine bi nga nekk li nga ciy lijjanti boo paree di nga may indil 1000 milliards. c'est là où est le problème en fait. mais enjeu yi wala aspect macroéconomique nga ñuy wax. au niveau euh, beaucoup plus. Euh, voilà sous régional wala léegi da ngay en fait boo boo ñëwee rek wax directement sous régional nit ñi duñu comprendre. Mm. il faut nga départ affaire bi fi mu commencé. ngay wax ci di ñëw. Mm. parce que tey xam nga man maa ngi lay wax ñi ngi waxu bii bi et cetera. mais tey ba léegi ci histoire bi dañuy incriminer nit. Mm-hmm. nañ jox suñu xaalis. Mm. mais loolu moo li gën tuuti ci problème bi. te lii affaire la. loolu mooy wax ji. da ne bu ñu ko toppee. Mhm. dinañ gis peut-être yeneen révélation yu gën a. sóot dinañ si jot a am dama la bëgg wax ni gis nga yii nii scandale yi contrat de pétrole yoo mënti gis si àdduna contrat d'armement yoo mënti gis si àdduna day am scandale yi. xam nga nan lay demee Pape Ousmane day yor benn orange boo xam ne moom moo ko moom mais moom amul jumtuwaay pour xooli orange bi amul jumtuwaay pour dagg ko mën ko séddale. dépendance ñun ñi ko wër nii ñii am nañ paaka ñii am ciseau ñii am coupe-ongle ñii am kudd léegi ñun dañuy négocier ak moom léegi. ku nekk ci ñun nag am nga njaboot. mooy le président de la république du Sénégal ak son peuple sénégalais. léegi bu ñu négocier ba tombé d' accord léegi kii indi paakam dagg orange bi kii indi kuddu bi ñu mën a séddale orange bi di ko dugal si kaas yi ku nekk yóbbu. léegi bu ñu demee ba ci exécution boobu léegi da ngay gis ne man damay jékki-jékki man ak persal ñu demee gars yi teg nañ ñu dél c'est-à-dire que li ñu signé woon yéen da ngeen ñu nax bu ko defee man ak persal dañuy defar documentaire boo xam ne c'est taillé sur mesure pour mouiller des parties loolu mooy xew ni D'accord. ce euh, suñu ah. dellusiwaatee le BBC ah. euh, scandale moi j'ai compris en fait rien ah. mais je veux que ça soit clair également dans la tête des gens qui nous suivent mm-hmm. bu ligne tout mal, mal à Aliou mm-hmm. c'est minime par rapport à enjeu yi nga a un certain j'aimerais savoir aussi quel est l'intérêt mm-hmm. pour la BBC de euh, def focus qui pétrole au Sénégal de boucan à mel ba encore une fois tay ñu déggaat leen fan yëpp maa ngi koy wax si édition yi nga xam ne ñu ngi koy def di conforter ñoom position bi ñu am ne duñ ci dellu gannaaw ñu ngi maintenir seen i accusation mhm. pourquoi ñoom ak tour bi ñu am ci àddina ak li ñuy représenter buñ ne euh, média britannique c'est pas rien te xam nañ li ñuy peser lan mooy intérêt bi derrière wala ñoom pétrole bee leen intéresse moo tax ma ne c'est dangereux parce que ñun on cherche la vérité mm. alors qu'en géopolitique la légitimité et la légalité ne priment pas ça n'existe pas tey gis nga suñu état yi suñu njitu réew yi moo tax ñu ne there is no truth in the news bu ñuy def journal nga gis Macky Sall dem nuyu Macron ñu defar affaire yi ba mu naes et cetera li ci suuf Macron day xoj Macky Sall du yëngatu bu heure signé mën ko signé fi par force te day signé donc loolu mooy coow bi dëgg bi ñuy wut ni en géopolitique loolu amul ce qui compte en géopolitique ce sont des intérêts et des rapports de force ëpp ma doole jaay ma ko loolu moo am moo tax tey booy xool scène internationale bi c'est la jungle formalisée c'est-à-dire que li sos tay état li tax ñuy wax tay état insécurité la déparé mais insécurité bob mais ressources moko indi. on n'a pas besoin d'aller plus loin nañ baye ni wala. exactement non non dinañ ah, dem ah. c'est-à-dire que juridiction yi dinañ ko top mais tay dama la bëgg wax ni lii mën nañ dem ba mu déstabiliser suñu réew yi. mais mais mais ci anam ko yàlla mais mais ana ana njëriñu kon ana njëriñu tëgg ay code pétrolier yoo xam te ne dañ koy méngaleeg. Euh, bu ñu yëngat ci wàllu pétrole ak gaz la mu laaj yëpp ñu ñu wàccoog moom pour que képp koo xam da ngay ñëw moo xam da ngay saytu pour xam pétrole bi am na am na ci ay conditions yoo xam te ci lañ lay teg bu fekkee ni amul légalité amul légitimité lan mooy njëriñal ñu am code yu mel noonu pour que yenn a conformer wu ak suñu gaz en tout cas ci code bi nga xam te ne moom la ñu. parce que dafa am ñaari parti yoo xam ne kenn waru ko mélanger. dafa am la géopolitique li nga xamante ni réew yi ñoo ko seq seen biir maanaam demalante ak dëkkalante bi nga xam ne lenn rek mooy objectif am mooy li nga xamante ni ku nekk si ñun am na ko nan la ñuy négocier ba ku nekk ci ñun mën ci mën ci seddu loolu mooy géopolitique léegi loolu bokkul ak tey bu ñu demee ba jox Sénégal seen part si pétrole bi ñu am njiit yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ñu def lépp li nga xamante ni moo war ba njuuj njaaj du si am dara lu tilim du ci am donc tay lepp li nga xamanteni ay enjeux nationaux la ça doit faire l'objet de consensus c'est-à-dire que tay la majorité l'opposition société civile lepp lu ñuy décider si lo xamanteni suñu ressource la ça doit faire l'objet de consensus hmm. Lolu lu ñuy fankal, c'est-à-dire bu ñu tay ba njiitu réew mi ak opposition ak société civile mën di waxé ci ben cadeau ci li nga xam moy soxal pétrole ak gaz Lolu ban njëriñ la ñuy amal ñun en tant que Sénégal Lolu moy dem ba wane ne tay bu ñuy defar suñuy code hmm. tey code boobu ba signature contrat yi lépp ñun dañ ciy déggoo de telle sorte que du am lenn loo xam ne dañ ko ciy nëbb tey boo demee dëkk tubaab yi ñi nga xam ne ñoo nekk si ginnaaw firme yi dafa am lu ñuy wax mandatory disclosure tey maanaam boo demee Angleterre seen ressources yi ñu am yëpp mais c'est disponible képp ku ko bëgg a gis képp ku ko bëgg a lire képp ku ko xam. ah oui les projets et tout dans les détails. dans les détails amuñu la. Ah, loolu nag mooy problème bi moo tax ma ne tey sooy ñi ngi wax le frère de Macky Sall et cetera. loolu mooy l' de la famille dans la gestion des affaires de ah, l' mais mais mais li nga wax nii xam lu ma ci déggee mooy da nga bëgg wax ni su déggoo boobu amul mooy. ñi ñi li ñuy njort mooy di nga am ay firme yu séparé wu ngemb kenn. Euh, moo tax sa ginnaaw mooy yi ngay dégg. est ce que yooyu. dem bay seen wax na lu am importance mu ne tey ay Benno Bokk Yaakaar la ñuy gis ay Pastef ay Abdoul Mbaye et cetera donc ku nekk di xaaju yaakaar ne lii affaire parti la wala affaire kii alors que lii affaire u Sénégal la te moo tax boo gisee mën la bu ñu toppee enquête bi ba ci biir di nga gis ne ñu ngi wax Aliou Sall mais gis nga ñii fi nekk di cëppi-cëppi nii hmm. am na ñu bëri ñoo xam ne ay firme ñoo nekk seen ginnaaw te am na ñoo xam sax dañ ci laal mooy ñu nekk ci opposition bi lu leer laa lay wax ah c'est pas exclure moo tax tey objectif bi ñi ciy wax ma dama la dañuy incriminer nit mais waruñu taxaw naan diw moo tooñ wala diw tooñul loolu beneen aspect la loolu enquête moo koy déterminer tey am na nu muy demee Aliou Sall mi nga gis ni ñu def enquête ba ci biir mu setal ko lu mën a nekk la donc ñi taxaw waxu deun la waxe waxee. Mm. Mm. taxamuñu ci dara. def la <laughs> di ñi nga ñoo nekk ci biir enquête kon wax ni ku ci nekk muy pouvoir opposition ku nekk war nga am recul bu baax. li sa intérêt wala sax aram nga ma sama question di mm-hmm. dañ ci ah. ñi politiquement sax dañuy bëgg di mm-hmm. pour problème BBC mais aussi mm-hmm. ay répondeur automatique gis nañ leen ñuy soutenir soutenir lu am solo nga wax ni parce que tay mo ramane enquête yi nga gis ni li BBC fësal c'est taille sur mesure. si c'est objectivé. léegi man question bi may bëgg a moy mooy euh, sunu problème mu défense fi ci ci ci diggante Sénégal ba Burkina ba yépp lutax à chaque fois on est dépendant. Mm-hmm. dañuy dépendre trop ba tey li xew Mali xew fa gis nañ force onusienne gis nañ fa lu nekk ay ay ay euh, force française ak lu ne force Barkhane ñëpp taxaw mais teewul li fay am ma ngi fay am te fi nga xamante ne mooy centre Mali fi ressources yi nekk ñi ko war a euh, teg loxo ñi ngi ko teg loxo te dara saafarawul loolu tax nag xam nga sànq maa ngi koy wax légitimité légalité yow li ngay wax nii dafa nekk loo xamante ni tey en tant que doomu aadama kenn warul seetaan li xew xew mais tey boo demee dugg si biir nag géopolitique rayante la foofu amul yërmande amul dara gis nga tubaab yi ñun tey bu ñu doon dóorante suñu biir seen yoon nekku ci l' essentiel nañ teg loxo pétrole bi dem seen yoon mhm. c' est ça qui les intéresse loolu tax nag ñun ñu war a am jiit yoo xamante ni dañuy am conscience yu yërëm seen peuple ba pare taxawu seen peuple loolu mooy objectif euh, est ce que manque de moyens mhm. le fait que ñun suñu réew yi amuñu doole war naa mën a tax contrat bu ñu rédiger rek mu war a gën a mën a avantage pour les euh, compagnies non problème bi mooy njiit yi nga xamante ne ñooy dem di négocier ñooñu dañu jiital souvent seen intérêt bopp jiitaluñu seen intérêt askan loolu mooy wax ji parce que tey li am mooy gis nga boo demee ba bi ñuy signé contrat bi nga gis ne Petrosen dafa am 10 pour cent Petrotim am 90 pour cent parce que lépp li nga xamante ne ay moyens la pour exploitation recherche ak partage Sénégal amul moyen yooyu te tubaab bi xam bu yàgg ne que ñun am nañ pétrole bien avant ñu koy xam donc loolu moo tax yow da ngay ñëw xaalis boo laaj non boo nee jox ma cent franc ñu jox la dix mille. investissement voilà nga xam ne bu heure wañ la jotee mais dañ lay xoj doo yëngatu. léegi nag peuple bi nga xamante ne ñooy seetaan masse bi xamuñu lu xew. donc ñoom nañ leen jox moo suñu responsabilité lan la ñu war a mën a def ñun. mooy li mu wax c'est que benn instant man dama jàpp ne ba tey si niveau njiit yi ñu war a am dafa des. voilà tey man toog naa émission télé bu mujjee def on parle du Rwanda ñu ngi leen di idolatriser à la limite. mais man je pose une question très simple ban borom xam-xam ngeen xam bu dëkk Rwanda bu siiw si àll ñëpp xam ko en dehors de la télé leen génnee ñi ngeen xam ngeen laajal tey jëlal Sénégal nga commencé si sous région bi nga wër àdduna nga jël domaine bu la neex boo tuddee Sénégal am na benn borom xam-xam boo xamante ni dans son domaine il est reconnu ñëpp nangul ko ko ndekam Rwanda moo am li am nii. mais quand nous Sénégal suñu développement nous affaire lu yomb la. amuñu volonté xam-xam xam xam-xam bi euh, du chaque fois lu ñuy mettre en exergue suñu que les pays africains li nga doon wax sank la et amnañ les ressources. on a euh, euh, des dirigeants pardon yo xamante ni sur le plan politique lañuy ñuy des si ay programme wala stratégie defuñu ko par exemple pour l'intérêt de la nation peut-être que dañuy privilégier yeneen aspect yoo xam ne ñun maîtriser wuñ ko mhm. loolu buñ ko amee ci dëkk Afrique yoo xam ne ku nekk noonu lay doxee kañ la ñuy am ñun connexion boobu nga xam ne moom la ñuy xaar parce que souvent lu ñuy wax mooy il faut qu'on fédère nos forces pour que déjà ñun ñu njëkkee ci suñuy problème avant que les forces yi nekk si biti mën ñu ñëw jàppale si mais fii nii ci biir ñun ñoo déggoowul ba tax ñee di ñëw war a ñëw régler loolu nag mooy wala ñu si biti ñoo nekk di créer problème boobu yëpp am na ci parce que si biir ñun tey boo jëlee Sénégal xoolal problème BBC problème bi nit ñi wax nga ko opposition bi dañ dem ba finalement de mais si affaire BBC bi ñu bëri dekk nañ si ah. donc ñu nekk dëkk boo xam ne dem seen émission bi suivre naa ko Sénégal ñi jàng bëri wuñu problème yu bëri am nit ñi amuñu ci xam-xam xamuñu dara mais dañuy wax ñi rek di dem donc tey même day programme yi ngay wax nii pour les élections campagne présidentielle mais programme yu bëri da ngay déglu leader mi wax nga xam ne kii li muy ñu lay utiliser ay termes techniques yoo xam ne yow xamoo dara donc loolu nag mooy suñu premier problème. dinañ yàgg feebar. dinañ yàgg effectivement. <laughs> gis nga waxoon naa ko fii affaire bi nañ ci demee xel mais ñu ci demee xol. Mm. ku ci xam na ci ñoo wax ku ci xamul na maanu. Mm-hmm. xam nga keroog maa koy fi mu ne nii droit gars yi dañ ñoo wax a wax ba fi nekk nii xam nañ léegi droit. c'est vrai parce que dañ ko wax ba fi nekk nii su fekkee partie civile bu wax bu waxee yee la. bu bu défense ñëwee bu waxee. léegi dañoo dem léegi koo xam da ngay xam parce que mooy wax bi waxu lañu yàlla séddee. wax rek wax rek ku nekk ni ngay amoon France. <laughs> avocat yi. yow eh Pape fi nekk di lépp sàng nga bëgg a lépp de. c'est ça continuer. ñoo ko jël. Ah ñoo koy jël Sénégal moom bu dee wax rek. alhamdulilah. Tafsir Tafsir Gueye nee na yomal xiyaam ñëpp bu ñuy ñëw yàlla day jóg ah waa waa dëkk bi ñëw leen waa dëkk bii ñëw leen day jóg siège yu taxaw di yi mais leen Sénégal bu ñu ñëwee day toog siège bi naa la jàlle nen buy buy jóg ñuy toog siège am xam nga c'est-à-dire dañ lay wane Sénégal wax la ñu yàlla séddee te fekkee wax ji sax dañuy wax pour luy am luy luy jariñ mi mais waxu par loolu nuy wax mm-hmm. xam nga tey lii capitaine wax lu jar xool la mm. lu jar xool la wallaahi lu jar xool la parce que tubaab day diviser rek pour régner nee naa leen ba tàyyi heure boo leen gisee oto tubaab ngeen gis ci nit ku ñuul nekk ca kanam intérêt tubaab ba la mm. bu njëkk ba sax tubaab yi baaxoon sunu maam yi danooy tubaab yi danoo yeewu sàngaat sunuy maam dem ba ñëwaat bàyyi sunuy maam ñu nelaw ñun tubaab yi ñu dajal danoo yeewu dóor ñu martu ñu xëm <laughs> ñu dem heure bu nu naree yeewu ñu dóoraat ñu martu ñu xëm tubaab mënut a bëgg nit ku ñuul moo tax Afrique il faut ñu joxante suñuy loxo mën a développé parce que lu yàlla di wàcce ci réew yi rek Afrique la ko yàlla indi loolu matière première bi fii lay jógee lu tax mënuñu avancer lu tax mënuñu développer ñàkk déggoo suñu biir tey jii bu nu woon tey jii Afrique dañuy def bon euh, euh, unité africaine ñu ni benn président Afrique mooy am Afrique rayante bi ci lay gën a bare kenn bu mag ma sa morom jiite la. kenn du eh, eh, eh, euh, Amérique y' a combien y' a cinquante deux états. Hmm. mais xool ni ñu organisé woo mais ñun Afrique mënuñu loolu parce que danoo bëgg nguur danoo bëgg njiit te. li ñu am li ñu li ñuy li ñuy li ñuy jéem a li ñuy topp maanaam la ñuy bàyyi muy ëpp valeur que li ñuy topp xam nga fii dañuy topp waaw rakku diw la wala man affaire bi leer na ma tey ji bu ñu woon rakku président Macky Sall affaire bi am coow bi mu am li muy Aliou Sall dong tax nit ñi di coow te it nag li tax ñi di coow parce que ku ndóbin rey sa boo gisee lu ñuul daw Karim Wade dafay jaar ak Ablaye Wade mm. looloo tax aussi nit ñi loolu la ñuy jàpp mais tey ji bu ñu mënu woon baas bi dinañu ah kon kii ndekete du dara mi ngi mel ni ki yore benn kuddu café ak koo xam dafa yore lengo d'or ngay topp borom kuddu café bi pour ne yem ki nga xam lengo d'or bi la yor affaire bi loolu la du ñu ni nag kii li mu kuddu café bi duñ ko lijjanti de waxuñu loolu de mais nañu lijjanti lengo d'or bi ba pare mm-hmm. soog a lijjanti kuddu café bi mais dangay commencé ci yooyu diviser ñi suñu biir xuloo am politiciens yi def ko politique politicienne coow li jóg ma sàmba wax ma demba wax ba lan waroon a faj sax du faju beneen affaire moo ciy mujjee dugg booy wàcc lakk lacrymogène yi daw ñu lakk ci ay kii léegi nag ñu am coow loo xam ne suñu biir moom la ñuy tal ba dootuñu talati lële il faut ñu doyen suñu xel yi tubaab yi dañuy nax Afrique bu ñu bëggee développé pétrole feeñ na fi man su ma gisee kër bi sax wal armée damay tiit dama naan <laughs> pétrole <laughs> pétrole bëggul almet <laughs> te sotti ndox ah. Ah, ah dafa bari tellement que. ah waxuñu sax lépp. population li nekk ci biir yëpp suñ ko waxoon nit ñi réellement dinañ toog duñ fi nekk sax di. <laughs> au delà de ça mais avant loo xam ne solo mooy aspect. corruption mhm. parce que lu ñuy wax ni yëpp tamit dafa am des gens yu négocier am ñoo xam ne dañoo signer ay contrat mhm. ñun mënuñu euh, que fiyewu ci ñi nga xamante ne ñoo ñu mhm. donc aspect corruption boobu tamit on le maîtrise pas. loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne ça va facile. légalité légitimité parce que ñi indi ni corruption moy rek jéem xol kan mo nek ci dëgg ku newul ci dëgg kan mo lek li kan mo lekul li mais Abdoul Mbaye il était premier ministre signature am nekk da si li nga xamante ne tey moom la ñuy coow ni léegi qu'est-ce qu'il faut dire te pourtant bokk na si ñi nga xam ne porté nañ combat bi donc point d'interrogation hmm. moo tax booy indi affaire vérité wala légalité wala corruption moo tax ma ne la bah, boo duggee ci monde boobu rek c'est la jungle mais formalisée Ça à dire que da koy xool nii mu rafet ba dee mais si suuf amul loi amul règlement amul conduite amul dara affaire diine kay dañ koy bëkkante suñu biir mais nan ngay comprendre euh, président Macky Sall ci euh, Korité bi wax ko ne on va faire face moo xam force yi nekk fii ci réew mi ak yeneen yoo xam xaw fu mu mënti benn loolu erreur de comme la mu waxee noonu wala baax na aussi mu affirmer autorité wane ne it euh, ci lu mënti ñëw it xam nañ mbir yi lan la. parce que sànq li nga wax dafa men loolu lay. waaw moom ñaari côté lay waxee parce ah. boo xoolee bi affaire bi jugee bi vidéo bi génnee man pour man dama jàpp ne ñoom ñëpp affaire da leen bett moo tax ma ne dañuy négocier am ñu ñu léser ñu génne boole ñi ci des te loolu bu ñëw dafa dal seen kaw. moo tax automatiquement da ngay gis ne Aliou Sall moom si boppam moo conférence de presse. nga gis les membres du gouvernement ku ci tëll journaliste tàllal le micro nga wax ils ont tous cafouillé. Hmm. ils ont tous ah cafouillé. ñoom ñëpp te foofu rek ngay xamee ne yaa anguille sous roche ñoom ñëpp ils ont cafouillé président de la république moom dafa teg benn tànk Sénégal parce que ñun ñoo ko fal il a des comptes à nous rendre kon effectivement coow bu mel nii bu jugee impliqué ku mu bokkal ak baay mais dina wax. mais nag moom si boppam tamit am na beneen combat bu mu am ak ñoo xam ne ñoo ko ëpp doole fuuf di ko imposer loo xam ne mënu ci dara te bis bu demee nag ba toog fale. mais capitaine non xam nga la moo tax parce que da ñuy jund da ñuy jund foog nga teg si loo xamante ne nag eh, eh, sànq bi eh, développé jóge ci kaw soo ma baax suuf dina gën a leer. Hmm. tey dafa am ay mots yoo xam ne bu ñu demee ba tudd ko ci dëkk c'est-à-dire dëkk bi kase concerné ko hmm. Sénégal pétrole bi ñun ñoko mom fi la feeñ Sénégal mais ñun sénégalais rek moomuñu ko donc motax bu ñu wax affaireu u franc CFA affaire indépendance affaireu ressources naturelles les premières conséquences sont d'ordre sécuritaire parce que tay gis nga Macky Sall mi xaalis bi nga xamanteni mom lañuy fayé fonctionnaire sénégalais ñi ko koy jox xaalis bi nga xamné mom lañ ko jox mu tabax ay talé ay bâtiment yu kenn xamul ñoñu xam nga la moo tax ñu jox ko suñu ressources yi moo tax moo tax bu né jox leen ma 100 francs jox ko 10000 ba pare nag taxaw di ko xaar. di tayle. donc moo tax man la dafa am benn tànk ci biir Sénégal parce que ñun ñoo ko fal on a le droit de lui demander des comptes mais nag si kaw fële dafa am ñu koy xaar. d' accord pour les anges. que am na ñu nekk peut être si kaw. di di piloter. Hmm. peut être bien. exact non di di di waaw yor yor pion yi. waaw xaaral ma ñëw j'en viens à la question mais yow est ce que. pas Pa Ousmane am certitude boobu. non man loolu dafa ma lay parce que ñun en tant que officier. Hmm. ñun loolu lañ jàng. état dañ la koy wan comme bouteille bi ne la lii mooy état moo tax yu bëri su amee nga gis gars yi di coow nii da ngay toog sa salon di leen xool di rey. mais coow li. Mhm. dafa doon fës avant. Mhm. y a eu peut-être euh, euh, des voix éparpillées de part et d'autre yoo xam ne doon nañ ci wax. Mhm. mais amul woon dayo bi. que ça soit nos dirigeants et tout amul kenn koo xamante ne amoon na ci taxawaay. donc est-ce que tey <laughs> BBC bu génnewul woon lii les gens dinañ am peut-être conscience ne affaire bi tollu na fii wala am nañu ressources yu toll nii te xam na peut-être am na mm, une partie. ñu ci ciy jëriñoo te ñu ci biir jëriñoowuñu. donc nit ñi xamuñu ci dara benn. ñaareel ba seetlu scandale yu bëri yu mel nii scandale yu bëri yu mel nii xoolal ñi xam état yëpp duñ ci wax. Mm. moment choisi par BBC. lu tax tey euh, démb Modiña wax na ko fi amul dara lu bees tey. ci ci ci ci ci ci reportage BBC bi lu tax Aram wax na ko lu tax lële nga xamante ne tey Ousmane Sonko lañ ciy cité. ay ñeneen ñi Sonko y' a ay ay sax ñoom ñëpp def nañ ci enquête. tudd ko euh, ku ci mel ni Baba Aïdara defoon na ci enquête yu xóot daal di koy tudd def la scandale BBC bàyyi ba. presque daal di indiwaat affaire bi mu def tole bii. kon ah, on est à deux ans de l'exploitation non.

le procureur ne va pas convoquer le euh, frère du président de la république C'est Je man ah. procureur pour. bon personnellement juridiction au Sénégal man pas la justice sénégalaise. Hmm. parce que comme par exemple man ma des hein. mais politique il essaie de couvrir le frère du président il faut qu'on l'admette donc lan moo indi problème entre Ablaye ak Macky les ministres de la paire gisaguma allié bu wax. c' est ça lan moo indi woon problème entre Macky ak euh, Ablaye Wade. mais kon da ngay dute ci suñu indépendance justice. Hmm? <laughs> da ngay dute kon si. ci problème bi. man gëmu ma justice sénégalaise mën na ko régler li ma gëm rek laa wax. Hmm. délit de faciès la wax. xam nga tey Macky ba mu convoqué Karim assemblée mais foofu la problème ak Ablaye Wade jóge parce que entre nit ak frère am entre nit ak doomam c' est sensible.

des forces de police ñëw nañ fekk leen fa interpeller leen yóbbu leen. Mm-hmm. est-ce que wax si dans l'espace public nekk na une menace pour la sécurité publique ba ñu war a mën di arrêter képp koo xamante ne jël nga initiative wax ci. waaw léegi nag bu fekkee ne ci côté boobu la ñuy waxee. dafa am ñoo xamante ni tey lii ñu nekk di def nii dafa am lu ñu jóge lu ko jiitu muy élection présidentielle. Mm-hmm. xam nga dañ def élection présidentielle président de la république ñi ne dafa wul élection yi daf ko lëbëj dugg na fii génn fii. moo tax tey ba fi ñu toll nii ñu bëri dañ jàpp ne sénégalais yu kontaanu kontaanuñu ci élection yi. Hmm. te mere nañ président la république. donc à tout moment réew mi mën na yëngu. Hmm. tey am na force yoo xamante ni yu bëri sax dañ leen prépositionné mettre leen en alerte au cas où dara xew. léegi nag moo tax bu ñu gisee affaire yu mel nii nga xam ne wàllu pétrole lay yëngatu mais dëkk bi mën na am soulèvement lu mën a nekk la. moo tax nag bu ñu gisee genre affaire yu mel noonu rek ñoom tam dañuy jël seen devant.

mais image mais ñi jël seen kii di def vidéo ñooñu ay polokat lañ. ay la ñiy dem fële place d'indépendance di def ay vidéo defuñu foon ay vidéo ci biir élection ñu jàppale ñu yóbbu. Ah, contre pouvoir. léegi ñooñu toujours à chaque fois daal ñoom mooy li may wax dañuy dugg ci coow li pour jéem a pour jéem a yàq. pour indi coow pour diaboliser nit. wala loolu dong la. du leneen politique politicienne ñu a. il faut il faut ñu ci war wax te xam ci dara nañu wax ñi ci xamul dar ay par parloo bi. Hmm. billaay ay pat par ñooñu pat parloo man tey parce am naa ko. man coalition Idy 2019 laa bokk. mais lii du affaire politique. ut tur du affaire politique. waruñu ko jël tey pour naan diw wala diw wala diw dem Mbaye Sane wax na ko fi nee na tey du affaire Pastef wala affaire Benno Bokk Yaakaar ak yooyu du lool. waaye léegi bëri nañ de ci wàllu pétrole ak gaz. je loolu am na Sénégal. Ah. oui s'il te plaît. <laughs> léegi man fi ma bëggoo ñëw sànq da nga wax ne ne problème bi ñun fuñ koy yaakaar sax. Hmm. weesu na foofu est-ce que kon bu ñu demee ba gën a xóotal li nga xam ne mooy enquête bi. dina sax weesu boo moytu gouvernement Abdoulaye Wade dina gën a remonter plus que ça moo tax tey boo déggee may wax consensus ne lépp luy enjeu nationaux dafa war am problème de consensus parce que lii dafa concerner ay régimes concerner ay générations. ñun pétrole bi nii mais am naa na buy dem réellement ba Sénégal di ci am léegi voilà ñun duñ ko sax fekkee parce que ay génération yi génération ñu ngi ñëw si kanam te ñun ñëpp tey war nañ bénéficié wu si résultat wu pétrole bi loolu moo tax nag mu nekk loo xamante ni waruñu ko jël nii rek sànni ko comme ça non non non kon tey yow jàpp nga ni liñ ci war a mën a dimbali même coow li bu amee sànq bu fekkee dama lay paraphrase ci li nga doon wax di ñu jox benn métaphore euh, ci ku yor kudd ak ñee yor ci mu nangam. Mhm. mooy ni xëy na euh, ñi commandité euh, peut-être documentaire bi dañuy ragal ni xëy na duñ ci am. li ko mën a sauver wax nga ko sànq mooy kon président Macky Sall il faut mu diisoog ñi ciy wax. Mhm. jamono yi te ñu fës ci. Mhm. te di wax lo xam luñ tek dégg na ci Alassane Sall ne amna ay réserve moy mhm. ni pareegul lu ni mën nako génné jëm ci waaw yoy man suma ma nit wax ko man politique mo tax ma taxaway bi tay ci président Macky Sall la la wara a doon pour que au moins intérêt national bobu non ñu mën ko préserver dafa am fo xamante da ngay politique mais dafa am fo xamante yow fal nañ la yoy ay njitu réew bu Sénégal da ngay wo ñepp ñi nga xamante tay ay acteur lañ do du sax affaire politicien kessé mais société civile bi ñepp ñu toog ñu xool lan la ñu war a def. est-ce que jàpp nga ni fi ñu toll nii président Macky Sall bu woote woon woote na am na ñu ko wuyu. Mhm. woote na dialogue national mhm. mais est-ce que foog nga ni fi ñu toll nii. Mhm. ci li nga xamee acteur politique yi ci ñi ngay wax nii. parce que gis naa benn certitude boo waxee. jàpp nga ni président Macky Sall mën na woo un Thierno Alassane wala Abdoul Mbaye wala Ousmane Sonko wala keneen ñu mel ni ñoom ñu wuyu ji ko. su ma doon moom man dama leen di woo personnellement. te gëm naa ne ku mu ci woo personnellement wax ak yow. en tant que njiitu réew di ko wuyu man loolu man suma ma doon moom je le fais. am kay ñett ñi nga xamante ne gis nañ ne ñu gën a fës mooy ay Abdoul Mbaye. Mamadou Lamine Diallo tekki et tout. ñu am seen coalition boobu. Hmm. et bien avant ñuy wax affaire euh, dialogue national bi wane woon nañu seen position. Hmm. Hmm. donc tey encore une fois je ne pense pas qu'ak lii dooleeku ci. dina faciliter seen toog foofu ci dialogue bi. loolu la ñu tubaab bi daawee tubaab bi xoolal tey lépp loo xam ne lu national la seetlu mën nañ rayante seen biir mais bu demee ba seen image u réew.

ñi si suuf duñ ko xam mais ñoom lan lañu ñu waroon def ci wàllu prévention ba lu mel nii coow li parce que quoi qu'on puisse dire am na ñoo xam ne ñu ngi tiit on est dans une situation boo xamante ne dans la sous-région porosité des frontières nit ñaa ngi koy wax on parle de questions sécuritaires cybercriminalité terrorisme ñu am encore beneen coow bu doole si waat muy li nga xamante ne moo di pétrole beeg gaz bi pourquoi en amont taxawuñu wala taxawoon nañu seen taxawaay moo mat moo matadi wala dañ ko fësalu. waaw li tax man ma bàyyi nag armée loolu bokk na si parce que ñun dañu jàngal ne réew armée moo ko téye moo tax ñu ne la le dernier rempart d'une nation c'est l'armée moo tax président de la république bu taxawee rek si ginnaawam nga gis un officier supérieur. Hmm. am na situation yu bëri yu am Sénégal armée moo ko réglé te kenn xamu ko am na ay président yu ñu àtte fii waroon leen tëj surtout entre Abdou Diouf ak Ablaye Wade mais armée mooy dem ne Abdou Diouf suba bul tëj Ablaye Wade léegi ñi ko xam bëriwul léegi nag ñuy dem ba tey armée boobu noonu fépp fi nga xamante ni officier yooyu noonu war nañ fa taxaw mais taxawuñu kii wax na sànq ne ay étranger ñu ngi fiy dugg. Mm. encore une fois ñun ay doomu aadama lañ on a aucun problème avec quelques pays que ce soit pour ñu dugg fi mais dafa am loo xam ne du yoon. Mm-hmm. ay nationalité euh, sénégalaise. du yomb mm-hmm. ku fi dugg ñu. même passeport ñun dañoo nekk ci frontière yi. Ah ñun ay frontière entre Guinée Bissau Guinée Conakry Sénégal. chaque jour ñuy enregistré képp kuy étranger ku fi dugg. moo xam Sierra Leone nga Libéria nga Guinée nga ak koo mënti doon. gis nga buñ ko kiiwee ba pare rapport la def envoyer ko suñu chef mais man tok na ben période bo xamanteni mais dama né sama chef direct mané ko lan moo tax étranger yi fi dugg yépp ñun buñu défé rapport ba tay kenn mësuñu wax né étranger yi kat li moy atté ci ñom hmm. te dañ leen di contrôler du pièce d'identité sénégalaise du sax pièce d'identité bu ñu am. xamoo lu tax ñu fiy dugg xamoo lañ fi def. kon yow da ngay dëggal njort ñenn ñu wax ni. Mhm. réew mi fi mu toll parce que ay jamono doon ko dégg yenn euh, njuuj njaaj yi ak yenn xeetu rek yeeg yenn façon taxawaay yi am ñu doon jàpp ni. boo ko doon seet parce que dafa am loo xamante ni tey man encore une fois. jàpp ma ne ñun ñoo gën si xeet yi. Mhm. mais dafa am loo xamante ni ku nekk da nga ko xam. baaxoo ko. sénégalais melul noonu. sénégalais bëri na wax sénégal mais sénégalais nekk nañ li ko xam ne bëri na yërmande te sénégalais tamit am na foo xamante ni ci violence du fa egg. Mm-hmm. man amoon naa ay promo tchadien am ay promo camerounais ak yeneen dëkk yi mais gis nga ñooñu sax boo nekkee ak ñoom dañ lay wax ne ñoom pour ñu rendi la du dara si ñoom mais tey cybercriminalité bi ñuy wax ni yëpp mais xoolal sénégalais yi waxuma impliqué wuñ ci de mais à la base ñi koy def du ñu ay sénégalais. voilà donc nag am na foo xamante ni man en tant que ancien officier nit bu may déglu may wax day xam ne kii li muy wax du ay caaxaan donc foofu noonu yenn niveau yi su ma fa eggee. je mets en danger la sécurité nationale. Hmm. voilà mais li tax man ma bàyyi c'est-à-dire que l'armée day dans un pays Si on est dans un pays où xamante une vraie armée pour man encore une fois li ma wax une vraie armée na mais tey ñu un président de la république constitution heure bu la neexee nga changé ko loolu la neexee nga mais un général devait sortir ne ko une constitution ah oui C'est yoon lii du dara extraordinaire hmm. bon la constitution c'est le troisième livre sacré de la république à part la Bible et le Coran c'est son rôle mais ce n'est pas ça. Le fait qu'elle soit convoquée, parce que aussi changer constitution de de du, au jour au lendemain, ay proposition la am fu muy jaar voix soit par l'Assemblée nationale wala référendum y a une constitution qui fi

Ah, il faut que ait en démocratie non man Madame naa euh, man la man amna ah. mais ba man wax critiquer par exemple président wala Madame man dama gëm Sénégal dafa dem ba évolution ndaw plus de 70% de la population à moins de 35 ans. donc tay situation de précarité économique et sociale yi ñu hmm. ak enjeu yi nga demande sociale pour man kenn waratul di wax lu wax pour wax dañ ko booy wax rek waxal lu tegu constitution aussi réew du ay fo tey boo gisee la gën a sonal Macky si problème pétrole bi lan la dafa supprimer poste premier ministre hmm. léegi kan mooy wax directement yow kon da ngay dute ci bi loo xamante ci question yoo xamante ne si dañoo war a génn dóor ci table da ngay dute ci seen que tey en fait armée bu ñu waxee armée soo gisee civil yi ragal ko ñun dañu jàpp ne l' armée c' est dans un pays c'est-à-dire que le chef d'état-major général des armées. li ngay wax nii nag xam nga la may jox. Hmm. ay coup d'état ak ñoom seen. non amuñu kii na servir ñu bëri. man ba ma bëggee démissionner du si yoon laa jaar. pour bàyyi moom day dute si kii wu sax si autorité mais du question de par exemple coup d'état ñun suñu armée melul noonu. amuñu loolu laay wax. saa à dire que ñun am nañu benn voilà histoire boo xam ne tey loolu ñun ñëpp koy sàmm. moo tax man ba ma demee ba xam ne franchement li ma nekk di def nii bëggatuma ko dama bind mais bàyyi naa jarul xuloo jarul xex parce que yoon may na ma ko foofu jarul ngay jël ay ngànnaay ci loo xam ne mosuloo am suñu dëkk adduna bi fépp foo dem tey ngay sénégalais loolu sa fierté lay doon ñu ne yéen mosoo leen am coup d'état mosoo leen am violence donc loolu kenn waru ci ñaaw man ci li ma jàpp mais réew moo nekk loo xamante ni tey Macky Sall daf ñu gën a Sénégal wala mu gën ñu fay bokk déedéet donc képp ku fi nekk tamit booy def rek da nga war a def loo xamante ni tey ñëpp a ciy gis seen bopp. Sall voilà. nga lim wax sànq laay ñëw ki nga sénégalais dañ daan wax sénégalais mën la triander. ba jël sa alal ci làmmiñam mais sénégalais amul xolu rey nit donc bond ko ci ay xeet mais nag liy dugg suñu réew war nañ ko xool. ah oui vraiment. mais c'est très normal parce que nag wax dëgg yàlla tamit. laabira laabira laabira laabira bay liy dugg sa réew di la lor di jàngal fu ne tey de xoolal xoolal agression bi léegi fi mu toll. bu njëkk ba sénégalais boo ko mosaan a jox eh, pistolet sax doo xam nu mu ko utiliser te xam nga. am na benn benn benn homme de tenue bu dañ doon waxtaan benn jour mu ni ma dafa am ñoo xam ne ay ay ay ay ay ay rebelle lañu ay rébellion de guerre lañu amatuñu ndey amatuñu bàyyi amatuñu famille fu ñu dégg mercenaire fu ñu dégg coow rek dañuy fexe bokk fa pour lan mën a mën a continuer seen dund. guerre am xaalis. léegi loolu dafa bari ci xam nga Afrique. amuñu doole na ma yàlla baal mais suñu ñàkk doole bi tam mu ne ni ci wet ñoo ko teg suñu bopp parce que teg bi suñu bopp mooy danoo danoo bëggantewul ba ci suñu langue politique bi sànq ñu ngi koy wax ñun saa ñu def saa ñu nekk ay ay adversaire mais ennemi la ñuy doon sànq capitaine mi ngi koy wax européens yi pourquoi ñoom bu nu bu nu coowee xëccoo xëccoo xëccoo ku nekk dem wuti lu mën jëmbalu campagne ñu dem ba xantee ba pare mais bu dara suñu intérêt mi ñoom ñëpp ñu dellu soir pourquoi pas pourquoi pas ñun mënuñu loolu parce que ku ci nekk ñaana ngaa toog ak ki fi yàlla teg xam nga sénégalais kan la bëgg politicien sénégalais ki ñëw ba dem ak ki ñëwul mais ki fi toog du wax ci moom lu baax te pourtant kooku lan war a ñaanam réussir parce que yàgg yàgg dafay jóge keneen ñëw te état continuité la moo tax ma ne ennemi lañu gën a wut que adversaire ben siège la bo xamné yàlla moy set ki ko neex mu tek ko fi bien vrai que nak sénégalais ñolay fal ñolay lay mais yow yaay séduire sénégalais jox leen lu tax ñu war la mëna a voteel yaa leen koy won mais man ko xam da fay taxaw di wax lu ñaaw wala di saga wala di xaste kok duma ko jox sama réew parce que dafa am ay valeur yu nekk ci ñun nday aram sénégalais amuloon amuloon xolu ray nit amuko sénégalais am na ndeysaan buy nekk ci mom bo xamni moy suñu chance sénégal dafa am yërmande mais li war a tey sénégalais boobu mën a soppeeku ba am beneen jikko xal ndox tàngul woon de xala ko wàllu jikkoom déggoo ma de ndox tàngul woon ko wàll ndox tàngul woon jaaru këriñ bu jaaru nekk xal boo dee jigéen ko bon bu yàggee ba yàgg da ngay bon mm-hmm. yow di nga vrai am jikko ju rafet nekk nit muy day def lu bon boo amul savoir vivre amuloo ñu la yare da ngay roy ci àndam loolu mooy suñu kilifa yi dañoo ànd ci parparloo ñoo di xam boobu mënatuñ sax. dañuy tëjante ay bopp maanaam mënatuñ sax toog. léegi parce que ku ci bu bu foo déggee Ousmane Sonko wuyu ji a président Macky Sall rek ñeen naan ah, ah. dañ naan lu tax muy dem am na ñoo xam ne bëgguñu mu dem dañ naan lu tax muy dem ko bëggoon sax. waaw bu xalaatee bu demee nii bu demee nii ñu xas ko du dem. kon kañ la ñuy daje. mais léegi nag loolu moo war a am il faut nag ñoom ñu daje parce que ñoo xam ne yàlla moo leen boole ñu bokk àdduna bokk lu ñu bëgg njëriñu réew taxaw. mais ku new kenn newuñu bu kenn bay sa tool mais toolu réew mi nag na ci ñëpp dugal seen loxo ñu bay mais doo bay duma doo doo duñu bay toolu réew kenn du ko mais dafay miti. waaye nag ki ñu dénk te yéen a ngi teel a signalé nag waroon naa teel yoon wi. <laughs> gis nga njiit <laughs> parce que ay nit ñu xëy nii yéen bañ. buñ ko buñ ko festi su ma la wooyee nga ñëw nii. waaw ma la wooyee Sall boo ma njëkkee kii teral ma ma ñëw nga nga ngàdd ma. waaw mais xam nga balaa maa ñëwee dinaa ko waajal. noo xam nga dafa am loo xam ni moom loolu waxin na rek. awtu waxin la waxin la waxin la <laughs> xamul nga. comprendre li nga wax mu ne. yaa ne fukki xale yi. waaw waaw maa ngi ñëw yow xam nga ki nga xam ne moom la yàlla jox mu jiitu ba pare moom dafa am loo xam ne ku doon xëccoog ñëpp mu jël ko li mu war a def rek mooy xam ni moom lu ñu doon wut jël na ko rek am na ndam jéggale yërmande yërmande mm. sëriñ Tuubaa bi mu jógee géej bi mu wàccee fii ci port bi lan la njëkk a wax baal naa samay noonu mais boo jekkoo da ngay baal yow da nga xëccoo juróomi candidat lañ yow yàlla fal na la ba pare li ci des nag yow xam ne la nga dul am nga li nga am nga ba pare li la war nag mooy nga yërëm koo woo na ñëw capital li wax léegi ñoom ñëpp ku ci président jëloon woo numéro woola la ni la ñëwal damaa bëgg ñu toog xeyna dina am ben resto bu dox sen diggante bo xamni parce que koo ci waxal danaa la man o maa Macky problème ah, ah, man o maa Macky sal en personne problème loolu lañuy wax hmm. te Macky sal mooy président de la république légui nañ dindi casque président de la Macky sal en tant que frère en tant que sénégalais wona la dag da nga bëgg liggéey réew mi ñëw da ngeen toog liggéey réew wala bu dé jëm yi mënu ñu dajé ah. ñu créer cadre non jëm yi wara dajé nak jëm yi wara dajé a daje li fek jëm yi dajewul pap parce que encore une fois man li may jeexale ci point bi nii lii nekkatul affaire lo xam lu interne la mais dafa laal l'international monde de cinq puissances là, cinq puissances constituées en trois axes nous, ñoo le monde bi que fu pétrole en train nañ fa loxo bi loxo am ñu bañ dañ leen parce que leen ëpp trois axes c'est l'axe russo-chinois anglo-américain et français ñii ñooy jiite monde bi donc ñun nañu mm. ñoo dañuy naxante suñu biir pour trouver consensus xam ne lii njariñu Sénégal la ëllëgu Sénégal la stabilité Sénégal la parce que gis nga 200 milliards ak dix mille milliards jàmm moo ko ëpp solo donc jàmm boobu nag nañ ko téye te leader politique yi ñoo war a téye jàmm boobu président de la république en tête merci merci beaucoup euh, capitaine euh, Dièye dinañ ñëwaat euh, si moom si ñaareelu pàcc bi léegi-léegi sécurité et prévention routière

ñëpp xam nañ ne nawet dafay taw te Sénégalais dañu tàmm benn affaire ni ñu mel ci suñu yaram. ah waaw alaaji nawet day taw. ah nawet taw la ñu xam nag alaaji. ah taw tax ñu naan nawet alaaji. bàyyi li ngeen day julli. ah kon dafay julli. ñaari junni xam naa nu may def ak moom léegi am ñu def mu jàll. voilà donc pour revenir si li ma doon wax ñu mel ci seen yaram. waaw noonu la mel seen oto ndax Sénégalais balaa muy dugg hôpital rek mooy mi ngi sukuraat <laughs> te buy dugg sax du fa dugal papa dañ ko fay dugal suñu oto yi tamit balaa ñu koy yóbbu ci mécanicien mu dem ba taxaw moom mënatul démarrer mooy mënatul laa yóbbu fenn alors que tous les six mois war nga def ay révision préventive rawatina nag boo jugee jubee ci nawet parce que dafa am ay ay euh, yoo xamante ne mi ngi accompagner oto bi yoo xam dafa war di changer lu ci mel ne ay pneumatique lu ci mel ne ay essuie-glace lu ci mel ne ay éclairage waxoon Sénégalais yi di kaas ne dafa leen wax naan autoroute à mu ne autoroute à bi lëndëmul seen faaru oto moo leerul ñu bëri kaasoon nañ naan respecté wul yi tubaab la mais il a parfaitement raison parce que autoroute bi zone yi war a éclairer éclairé na par contre zone yi traversé agglomération éclairé wul mais boo jëlee oto yi ñuy daw tu as l'impression que ay sondel la taal ñoom ñëpp parce que suñu éclairage dafa faible trop parce que tout simplement duñ ko toppatoo ndax ampoule dafa am Euh, conseil d' entretien yi la mën a jox mooy bi ci njëkk mooy sa pneumatique da ko war a xool parce que pneu dafa am durée. surface de contact entre la voiture et le bitume moom mooy dox diggante oto bi ak tali bi léegi pneu dafa am bu ñu koy defar dañ koy defaraale ak lu ñuy woowee ay indicateur d' usure comme sa yaram ni mu amee ay poils pneu day am ay poils mais aussi day am ay rainures ay ay genre kamb yu ñu defar ci biir pneu bi defaruñu ko parce que dañ ko bëgg a mi dafa am njëriñ. poids yooyu noonu ñu ngi leen tuddee ay témoins d'usure dañ leen di jox benn durée de vie ñu am benn résistance boo xam ne bu ñu leen tàggatee dañ naan bu oto bi dawee daanaka dagg soo ko xoolee nga xam ne pneu bi commencé naa màgget loolu moo lay wax ne pneu bi commencé naa. en attendant pneu Abdoulaye di ñëw 2024. waaw pneu Abdoulaye li yooyu moom man bëgguma sax mu ñëw parce que bu boobaa business bu bëri day yàqu ndax pneu bu ñu crevé moom kenn xamul fu mu jëm ak moom ba pare <laughs> ñi waroon jaay pneu dootu ñu jaay voilà donc yow boo yoree oto nga jëm ci nawet war nga ñëw vérifier loolu sax se vérifier à l'œil nu boo gisee ne que témoin d'usure yi commencé nañu dagg li nga war a def mooy changer pneu rainures yi aussi boo gisee ne que dem na ba rainures yëpp maase da nga ko war a changer lan moo tax mu important tey jii booy daw ci ndox bu tawee ngay daw ci ndox rainures yi ngay gis nii mooy genre kàmb yi ngay gis nii ci pneu bi mm. yooyu moom mooy favoriser l'écoulement de loo ce qui permet pneu oto bi tegu ci tali bi ba léegi parce que ndox bi am na benn canal bu muy jaar bi tegu na ci bitum bi ba léegi mm. par contre bu fekkee ne dafa dem ba liis ba maase day am lu ñuy woowee effet aquaplanage dafa mel ni nga teg gaal ci ndox day glisser mm. léegi pneu yi dañuy dem ba dañuy glisser nga gis oto bi nekk ci ndox mi di dem à gauche à droite nga braqué nga freiné ak loo mën def tu n'es plus maître yow da ngay suivre courant yi rek mooy waral buy taw ngay gis yenn oto yi di déraper déraper ba dal fenn wala ba dal ci oto wala ba dal ci nit parce que tout simplement pneu yi ñoom ñoo usé. vitesse bi ñu daw itam am na mais quelle que soit vitesse bi ngay daw. lépp na yii nii yi ñuy wane yi nekk sa ginnaaw nii ils sont conçus de telle sorte que tey jii nii vitesse nominative yi nga xam ne moom lañ jox oto 130 heure boo koy daw sur route mouillée soo freiné sa distance sa freinage li si yokk matul 15 la distance de frein à si yokk 15 mètres donc vous faites qu'un tu as tu un chauffeur boo xam une capacité de réaction pour freiner à temps mën éviter l'accident. parce que accident ñetti facteur Le facteur humain état des routes état des véhicules Nous, avons ñett yëpp ci saytu parce que da nga gis koo xam ne day dawal ay pënam ba mu jeex tak tak tak saala mi xool naa ay pënam sànq mais dañu raasi ba jeex tak heureusement ba nekkuma si côté yi kon pneu saala yi dañu raasi ma tudd ki ma jox pneu yi kan ma la ko jox ay pneu bés laay rek <laughs> tooñ donc pneu yi bu ñu usé bu demee ba ba ba témoin d'usure yi jeex ba renure yi aussi dañ boo duggee ci ndox boo freiné aquaplanage day am mm. bu ndox amul tamit bu fekkente ne tali bi dafa am suuf boo freiné day tarxis dafa mel ni nga sol ay dàll yoo xamante ne talon bi semelle la wala crêpe. donc crêpe boo tegee wala marakis boo solee marakis di dox si tali bu am suuf boo xefee di tarxis di daanu même effet bi da ngay gis oto yoo xam ne dañuy freiner seen frein jàpp na mais bu ñu waree dem defi contrôle technique parce que dañ leen di xas souvent naan mm. technique contrôle technique ah, oto day accident dañu ne oto bi pourtant amoon na visite technique nit mën na war a dem visite technique mais waaw ah, mu ñëw ñu def contre mais si je parle en connaissance dañuy dem louer quatre pneus yu baax je parle en connaissance de cause dañuy louer quatre pneus yu baax louer extincteur ñëw fay 3000 ñu defal leen seen paralysme louer triangle de sécurité louer gilet louer cric ñëw jàll waaye léegi kooku bu génnee delloo pneu yi am na contrôle technique théoriquement mais pratiquement le véhicule n'est plus apte loolu noonu kan moo ko mën a contrôler il faut accident am ngay soog xam ne oto bi dafa amoon ay fay. léegi waaw mais xam nga xam nga Sénégal moo demee noo xamante ne lépp dañ ciy dañ ciy business dañuy business si diine ji wax nga ko léegi di business si xale yi kon à plus forte raison si li nga xamante ne ay normes de sécurité ation technique à faire mooy xool pneu yi bu fekkente ne pneu yi usagé na nga changé ko beneen bi si topp mooy les balais essuie-glace c'est très important Sénégal oto yi di daw bari na te bari na yoo xamante ne amuñu balais essuie-glace te nag ñàkk a balais essuie-glace li tax mu dangereux mooy buy taw ndox bi buy écoulé wu ci pare-brise bi mënatuloo apprécier distance yi xamoo ndax ki sa kanam 10 mètres la la rawee wala 5 mètres wala dafa freiné. Mm-hmm. mënatuloo def la différence entre un feu de que di nga gis ay lampes yu mais xamuloo intensité lumineuse bi ndax feu de stop bi ba léegi ce qui fait que mën na freiné yow nga di ñëw ba mbëkk côté doo ko mm-hmm. gis. saa yu taw accident da ngay daw te amuloo balai essuie-glace. wala yi nga am baaxul. donc balai essuie yi am ñun

loolu la rek léegi bale essuie-glace yi dafay gaaw a yàqu parce que qualité bi ñuy envoyé souvent fi baaxul mais am na qualité bu baax am na marque yu baax yoo xam ne boo demee ci concessionnaire yi dañ lay jaay bien que dafa cher mais yi dem ba 3 ans bu loolu weesoo nga dem ci sa électricien mu xoolal la moteuru bale essuie-glace yi parce que moteur yi des fois mën na grippé mu taw ndox jàll rek mais loolu moom mooy gis nga loolu noonu. <laughs> loolu mooy nee aar mooy loolu du ma ko def. déedéet loolu du ma ko def mais ça la justement gis nga def loolu nag. def loolu nag mooy xam naa ne moom moo gën a jeex la ay pël. mooy début de solution mooy début de solution pour wàññi les morts sur nos routes gis nga diggante diggante mois passé ak léegi ñu ngi dénombré 33 morts. si 14 millions de problèmes Sénégal accident day am mu mel ni avion bu daanu donc loolu noonu il faut ñu commencer. yi nga xam mais si yi détails yi nga xam dañ koy xeeb di ko ñàkkal fayda boo demee feneen. te comme tali bi daa gën a neex tamit daw bi justement boo demee feneen moom lañ dul café am na yeneen dëkk yoo xamante ne caaxaan new ñu bale essuie glace bu baaxul wala éclairage bu faible ba pare ci loolu nga daal di dem daal di

si topp mooy. fi may terminer mooy naka la ñu war a dawalee ci. ittaqullah man Thérèse kii dinañ ko audité ko kii rapport UG dina ko <laughs> donc fi may terminer nag mooy naka la ñuy dawalee buy taw parce que boo yoree oto da ngay xam sa oto maanaam da ngay xam mécanisme oto bi mais aussi booy daw ci tali da war a jéem a def effort nga xam oto bi lu tax ma ne xam sa oto parce que oto dañ ko concevoir comme doomu aadama mm-hmm. ni nga amee cœur am poumon am ay narine yu dugal air beeg yëpp parce que tamit noonu la am na loo xamante ne day dugal air am na loo xam ne carburant lay jàllale et tout ça léegi da ngay des fois mu am ndox bu taa nga gis ne ndox bi soriwul mhm. nga ne xaaral mu xuus mais balaa ngay xuus xamal sa mécanisme oto mm. oto dafa am lu ñuy woowee filtre à air moom mooy récupérer air bi ci biti pour filtrer ko jox ko moteur bi parce que moteur bi dafa soxla air pour mën a comprimer carburant bi pour mën a étincelle bi mën a ñëw tàkk mu mën a am combustion mm. léegi filtre a air boobu selon type oto yi am na yoo xam ne dafay kawe nekk ci kaw am na yoo xam ne dafay suufee nekk ci suuf bu dee sa filtre à air dafa suufee nga xuus si ndox mi nekkatul filtre pompe lay nekk pompe day aspirer ndox mi dugal ko ci biir moteur bi mu kale supa bi yow nga nekk ci biir oto bi prisonnier boo ñàkkee chance moteur bi ni mu tàngee noonu ndox bu tàng boobu bu ko laalee saxaar bi du dugg ci biir ndox mi day jaar ci conduit d'évacuation euh, climatiseur bi mën nga koo respirer perte connaissance c'est des cas yoo xamante ne amoon na c'est des choses yoo xam ne seulement Sénégal li ñuy daw di yéegal vitre bari ci bëri seen climatisation baaxul moo tax mm-hmm. mais buy taw souvent da ngay yéegal say vitre te bu loolu amee amatuloo courant vitre yëpp verrouillé na yaa ngi ci biir ndox mi affaire bee ngi commencé génn yaa ngi koy noyyi te doo ko gis parce que saxaar la boo xamante ne leen benn ah. yéexee wàllu fa ngeen nekk mën ngeen loolu kon balaa ngaa engagé aussi benn gay maanaam ndox bu ñu bu taa mm. xamal sa autour pompe fu mu nekk ba pare ba noppi soo demee ba ciy jaar ndax mënoo cee bañ a jaar parce que foofu rek mooy yoon bi bul jaar ci trottoir bi à gauche ni à droite nee jaaral ci digg bi nga nekk au premier di daw au pas bañ a. accéléré bu amee ay ay ay kër nag. waaw justement si digg que xam nga xam nga xam nga xam nga classe pass moom dañuy sàcc ay rigol fekk benn euh, canot d'évacuation bi parce que trottoir yi. rigol yëpp dañ ko dindi. conduit d'évacuation d'eau yi yëpp dañ ko dindi ay kàmb la yoo xam ne souvent benn bant lañ la defal pour wan la ko. benn xale mën na romb dindi bant bi donc ngay daw ci trottoir bi di seere ñëw ba ci kàmb gi oto bi dugg châssis bi day libre day tegu ci kaw su kii tali foofu mënatuloo faa génn te ci biir ndox mu taa di boo xoolee au niveau de Castor si wetu ñaari station yi souvent c'est c'est un problème comme ça qu'on a koy xalaate parce que tout simplement conduite d'évacuation bu amee daal bàyyi bàyyi rek yow taxawal mais bu la nga des fois bu la ci yoon xam nga des fois première question bi ñu njëkk bi euh, conseil bi ñuy njëkk joxe mooy dañ na buy taw soo mënee bañ a génn ak sa oto toogal sa kër. mais léeg-léeg mu fekk la au milieu de la circulation léeg-léeg nga nekk digg autoroute embouteillage am muy taw ndox mi di wàcc seen kaw mm. ça c'est des cas qui ont qui sont déjà arrivés autoroute Seydina Limamou Laye bii day taw embouteillage am ni ñi bloqué ci biir embouteillage ndox bi day ñëw ba dugg ci biir oto bi man toog naa sama oto sama portable dafa dem sa dafa jour boobu parce que ndox bi dafa dugg ba ci biir oto bi pour vous dire que Dakar genre cuve la boo xamante ne loolu mënta mm. mais léegi dañuy jéem a fexe rek ni ñi bu ñu xësee ba nekk talib ba taw bett leen ñoom ay attitude yoo xamante ne sérénité la ñuy wane pour mën pour mën a génn ci situation yi nekk léegi nag bu dee taw bett na la ba mënatuloo dawal li gën a sage mooy nga xool fu prudent fooy gaare sa wàcc oxy tubéy comme tubéy bi payi sol tey boobu baax <laughs> na ci daal di 4-4 origine am Amérique la woon les militaires américains ñoom ñoo xam naa commandant dina ma mën a kii parce que ñoom dañoo am ay désert ba noppi ñooñu daax a taw ñooñu daax a inondé donc ay oto la yoo xamante c'est conçu pour rouler dans de pareils situations ren super saala waaw ñooñu moom duñu am problème bu bëri ci hiver saala ren su si la woon yàlla na yàlla dégg benn wax nga ren super saala yi nee nag ren yi nag boo ci duggee nii daal règlement de man de maag passement yóbbaale nañu muy dawal nekk en infraction ñu bëgg ko mu gaar lañu wàcc ba pare nañu ay nettalikat nettalikat bon ngeen loolu la ñuy. naa ñu lii oto géwél la ni ma ko bëggee noonu ngeen koy doxal. première dame bu ma première dame bu ma ma naan damay dawal damay wii ba sama xase doo wàcc bi ñuy wàcc mu naan leen nettalikat bi ko jigéen doon. ah comme gëm nga capitaine gëm nga yi. damay taxaw ci digg damay taxaw ci digg circulation. dañuy délire rek dañuy déliré bu la premier temps wooyee mu ne dikk autoroute laay taxaw wuyu ñu wax ko mu ne man géwél laa sama téléphone bii la am kenn maa ngi xam ba noppi naan nettalikat yu bon yi ngeen doon wàcc leen moo ko wax moo ko fekkee non non xam ngeen dëgg la ñu wax rek dëgg la ñu wax rek kenn amul sutura si plateau bi loolu ma jaaxal si chroniqueur yi ah, li leen di xëy teguma leen ñoom daal fu ma gis ak fuma len romb di len ah yene nek fi ya <laughs> ñaa de ma avance longu premier dem di leen ba ñu suba. Mm. loolu rek ngeen di fay. <laughs> wax nga sank pour changer pneu. Mm-hmm. fan moy les bons coins pour dem pour changer pneu. waaw am na ay ay ay bon mënu ma def publicité parce que Mansour daf may. Eh, waxuma la entreprise nag. mais am na ay non am na ay ay. concessionnaire mag yi xam nañ la ay concessionnaire yoo xamante ne soo ñëwee il te propose des pneus neufs parce que nag am na pneu yoo xam ne ñu ngi jógee Europe pneu yooyu du ñu ay pneu yu bees mais dañ leen defal lu ñuy woowee réchappage.

ils n'ont pas des climats tropicaux. Comme en Europe, le réchappage peut bien fonctionner là-bas. Parce que le climat n'est pas trop tropical. Mais ici au Sénégal, on sait que sont en train de à décoller, Sur le long terme, des fois, on des ma gis ngeen ko si day gis pëne yoo xam ne day am lu am taab si si daw en stabilité c'est encore plus dangereux que pneu bu jeex ah donc man maa ngi leen di conseil lu bari parce que am na pneu yu jógee Europe te dawul lu bari mais li préférable mooy ñu def Pape Ousmane baax na. jënd yu baax yu bees jënd yu bees. dafa cher non cherul 250000 nga changé 4 nga ne 200. 50 000 nga changé 4 pour 4 ans ci oto bi ça dépend ci oto bi. pour 4 ans ça dépend ci oto bi non man base bi laa la jox. Ah. parce que saa la ay pneu ay saa la ay pneu ah. benn day jar ay 1 million. am na am na pneu yoo xamante ne boo ko laajtee rek moom da ngay découragé. non base bi laa la wax comme comme comme sama. ñu ne ñu naan topp di dañu laa suivre. pour 1 million saa la jënd. <laughs> yow sa rajo bi loolu la saa la mënoo jënd oto 40 millions ak bi. petit service la mënoo jënd oto 40 millions ak bi. xanaa xamul dañu laa topp. saa la bii pétrole bii man dégg naa ci turam dama ko <laughs> Merci beaucoup, Moustapha, pour la sécurité et prévention routière. On observe une page de privé, on revient juste après. <laughs> Africulture Urbaine présente la 14e édition du Festa 2H, le festival international de hip-hop et des cultures urbaines du 18 au 22 juin 2019. Au programme, TJ Awadi, Deep Dundugis, Matador, Kirki, Elzo Jamdong, Omzo Dollar, Nido, Nix, Books, Mami Victory, Alien C, Mouna, Ada Cannibal, Is 814, Simon, Ouak Hassan, One Lyrical, Taiji Singh, OMG, Nobin, Abdel MC Mo, Fouken et Hardcore Side. Rendez-vous à la Maison de la Culture d'Outasek pour 4 méga concerts le mercredi 19 juin jeudi 20 juin, vendredi 21 juin et samedi 22 juin à partir de 16h. Entrée symbolique 500 francs par concert. Info 9 33 834 68 60 77 787 27 22. Festa 2H 2019, c'est zéro déchet, zéro plastique pour le Sénégal Toutes les informations sont disponibles sur seninfo.com. Les chemins de l'information juste et fiable. Buriti. Vidéo. Société. de télécharger l'application sceneinfo.com, le chemin de l'information, juste et fiable. sauver les gens. Où sont-ils La fille de Mouchewal. dama war a ànd ak benn jigéen am ci information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 laay ragal àll bi. waaw. non Fama laay gërëm sant ko. déedéet Fama moo tax. déedéet waaye li ngeen def la. idée bi alors merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de Toile MTC on enchaîne avec la deuxième actualité sur la toile et c'est tout de suite. Djabi, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui dit le Sénégal vit dans un très grand média mensonge. waaw dafa ne ay kàcc kese ñu baal ma ci kàddu bi moo tax a jóg euh, yenn média yi ngir gëmloo askan wi da am euh, ñuy rek daldi salfañe wala rek di def ay njut njaaj ci alalu li nga xamante ne si moo di alalu askan wi loole nag euh, tukkee ci nga xamante ne mooy jëwrin bu ñu yor bu yor lépp lu jëm ci wàllu wérgu yaram nekk itam maire bu Yoof loolee nag la daal di euh, dégtale reportage bi nga xamante ne chaîne briti nag britannique bi euh, def na ko daal di leen ci rek joxoñ baaraam tuma waaye nag ci loolu moom Abdoulaye Diouf Sarr joxoñ na si baaraamu tuuma ñi nga xamante ne si ñoo nekk ci enquête bi ku ci mel ni que ex premier ministre di Abdoul Mbaye du Lamine jàlloo bu tekki ñu wax ne rek ñoom ñooy ñoo nekk ci ginnaaw daal ngir rek euh, déstabiliser <coughs> réew mi wala sax euh, di véhiculer ay information yi nga xamante ne si amul benn fondement te lenn taxu leen a jóg lu dul rek daal di euh, tilimal liggéey bi nga xamante ne mantooram mu ngi koy jot a def waaye tamit di indi gàkk-gàkk ci jàmmi réew mi. capitaine yéen bokk gis-gis. par parlo bi ñu doon wax sànq rek ku ci nekk da ngay wax pour ni ñuy wax chacun voit mi di à sa porte. Hmm. loolu donc ñii gouvernement bi dañuy wax. pour setal seen der ku jegi di leen xëpp pour tilimal leen loolu moo ci nekk mais boo leen toppee si wax yi nii man je pense que le débat en tant que tel dans le fond comme dans la forme est biaisé. Ousmane. enquête judiciaire daal fu ñu ko waxee jàpp naa ni wax yépp war nañ ko mën a wéer nag ñu déglu ñooñu. Mm. xam la fay tukkee. Fassala. Mm-hmm. Mm. Ah, mais loolu la rek ku sëlam sow ji du du set da ngay jël say laas sax di ko ci taxal di ko ci dugal loolu la rek fii moom nit ñi nit ñi xam nañ de dañuy xam ba ci rek. parce que réew mi moom moo toll foo xam ni boo waxee lu baax ci ki fi nekk ñu saaga la xas la boo waxee ki nga xam ne opposition la nekk ñu ne yaa baax réew mi daal moom looloo fi nekk nañ ko wax nag te dund man du ma ko wax di dee dama koy wax di dund <laughs> nanu bàyyi par par loobu ku ne am nga droit far fa la neex mais fii laay far lu tax kii di far fii mm. loolu kenn sañu ko li am solo mooy nanu far Sénégal mm. li capitaine wax rek ñee doon taqal ñee ñii di tilimal ñii rek ñii di setal ñii ñii di est de bonne guerre est de bonne guerre merci beaucoup tout de suite bee maman Yeah. Fatima ñu ñëw euh, ci mbirum alimentation des femmes enceintes on va parler des envies insolites. voilà lu tax ma indi ko sax dafa am ñu may waxal xam nga sànq tonton Sala pour ñu indi ndox bi dafa am nu mu waxee ba ñu dégg ko. Hmm. man tamit moo tax ma xaw ma indi sujet bi pour am ñu may waxal ah, ñëw aussi ñu mën ñu mën a daal parce que euh, dama ciy dem sax directement góor ñi bëri na si ñi nga xamante ne du comprendre am na ñenn ñoo xamante ne sax dañuy wax ne ne bon seen jabar yi dañoo dañoo réew wala euh, xame xamadi la euh, wala duñu ñu mën a xam exactement genre comportement yu bees yooyu noonu ci seeni soxna ñoom naka lañ koy euh, qualifier donc parfois dafay indi incompréhension mën na sax dem ba indi frustration ci ku jigéen ki bu fekkee ne dafay gis benn sentiment de rejet mhm. vis-à-vis de son mari de la part de son mari donc dafa nekk loo xamante ne lu doy waar et c'est important nit dara bu koy dund yow mi nekk ak moom nga jéem ko comprendre ba xam moom exactement naka la koy euh, dundee bu ko defee ngeen mën a jàll ci euh, étape boobu euh, envie insolite nag laa wax bon insolite moo tax ma jël cinq <laughs> yoo xamante ne moo ma ci gën a marqué aram nga gis jigéen daal di ëmb jël fromage fromage mën na nekk gruyère wala loola dara mu jël fromage dugal ko ci mayonnaise di ko di ko di ko lekk xam nga kuy ku jël fromage dugal ko ci mayonnaise di ko lekk nga gis ko xam nga loolu mën na nekk lu lu bizarre da nga naan mais attends kii nii lan moo ko dal fekk ne ne ay envie yoo xamante ne daf leen di faral di di dal pour yenn góor ñi bu ñu gisee euh, peut-être seen jabar di ko wax jëndal ma lii jëndal jëndal ma lii du ñu comprendre mais nga jël mayonnaise jaxase ko li nga xamante ne moom mooy euh, fromage nekkul lu ñuy gis tous les jours donc ça veut dire que jëndal ma lii jëndal loolu man man de bu naa ci profité non mais nekkul lo xamantene jëndaal li ma bëgg Ne loo xamante ne luy présenté wu la euh, durant euh, neuf mois mais benn étape kese la moo tax yow mi surtout yow mi nekk ak sa sa sa jabar yow yaa war a mën a comprendre loolu boo gisee yenn comportement yi beneen bi ma marqué aram mooy nga jël li nga xamante ne mooy hamburger nga koy jaxaseeg chocolat. Euh. Ça. <laughs> hamburger nga koy jaxaseeg chocolat mm, sans exagérer sans exagérer bu noo xam envie boobu noonu naka nga koy expliquer loolu déjà boo ko déggee rek sa xel euh, nanguwu ko sa xel nanguwu ko donc ce sont des envies yoo xamante c'est c'est fou <laughs> mën na wax lolu c'est fou mais encore une fois góor ñi ñom ñoo wara mëna mën euh, ba comprendre même femme bi nga xamantene lolu nonu mom moom koy dal mom mënu ko sax expliquer mais l'envie l'envie est là te doo su su boba bu bu amee lekk boobu rek du du ko mëna a euh, bopam même bu fekkee ne xel nanguwu ko sa jabar mën na jékki à trois heures du matin mu ne la damaa bëgg a lekk viande ndawal waaw boobu moom il faut que ku góor ki def effort parce que am na dibiteurs yi yoo xamante ne <laughs> dañuy dañuy dañuy tijji non wala <laughs> dañuy dañuy tijji mais am na ñoo ngi ree <laughs> parce que xam nga lu tax may may may. <laughs> pourquoi pourquoi ma man ma tànn sax bii nii parce que da ngay gis am na góor ñoo xamante ne bien avant amaana na ñuy am jabar ñu toog ak seen xarit dañ naan dégg naa jigéen ñi bu ñu ëmbee lu nekk lañuy ñuy laaj ak yooyu di nga gis ay góor yi commencé sax di siisu naan man loolu ku ma ko def man nit sañ na ma yee heure bii naan ma ay jëndal ma lii waaye yëpp reewande yooyu genre fekk ne du du loolu ah sàmmal sa kàddu persaal na la dóor <laughs> non mais loolu réalité la il faut que góor ñi ñoom ñu comprendre envie bu fi bu fi nekkee ku jigéen ki ci boppam moom loolu nekkul ne da koo sàkku c'est quelque chose de de de naturel donc à 3 heures du matin dëgg la métti na yaa ngi war a dem liggéeyi wala am nga ay ay yeneen yitte ñu yee la nee la lii laa bëgg a lekk bu fekkee ne yàlla may na la possibilité nga war koo mën a jënd il faut la faire pas Ousmane ni yaa may xoolee nii comme si pour dire que loolu est-ce que. non si si non non am na dinaa ko dinaa ko def. loolu c'est c'est c'est très très important xam nga bu fekkee viande viande xam nga mën nga ko am parce que am na dibiterie yuy tëj 5 heures du matin 6 heures du matin mais bu fekkee par exemple gerte caaf la c'est compliqué par exemple pour la 2 deux heures du matin damaa bëgg a lekk gerte caaf boobu compliqué mais li nga xamante ne viande war nga koo war déjà geste boobu rek bul xam point yi ngay gagné si nga c'est important bii nag xam dina leen choqué aram glace nga jël def glace glace ak moutarde. moo ay envie yu la. booy bu glace euh, waaw d'accord. <laughs> glace ak moutarde. glace mel na ay vanille glace glace nga jël def ci moutarde di ko lekk. glace glace crème glace. ah crème glace <laughs> crème glace si boppam nga jël ko jaxase ko ak ah, ah? eh, ah, <laughs> vraiment xamoo lan lay njuróol. am na yeneen femmes xam te loolu si si euh, si moom. parce que non non man non vivre gu expérience bi beneen bi xam nga glace <laughs> kay ah, mais di ah il y a certaines yoo xamante ne déggal nañ leen am ay peut-être mun am mhm. voilà am na ñoo xam nga fruit yi am par période la di nga gis ku la ne man damaa bëgg a lekk wala fruit te nekkul ci période bi d'accord comprendre nga xam nga loolu dafay faral di nekk lu lu lu metti mais tey ak euh, grande surface yi nuñ fi nuñ fi bëree euh, yow mi ku góor ki sa jabar bu la waxee benn fruit boo xamante ne wala leen lu mu a lekk te nekkul ci période bi war nga mën a def effort parce que si muy gën a insister mooy le geste c'est important nit ki bu nekkee si benn période xam ko te mu xam ne ne yéen ñaar yéen a ko construire c'est important muy sentir yow sa présence même bu fekkee ne ne lu lay laaj c'est quasi impossible. Papa Ousmane c'est insolite boo fàttali ko ba baaxee ma ko rek. question boobu bett na ma de. <laughs> man kañ nga may miis laa bëgg a xam. si benn man kay war naa mën a am exemple. ah benn nag bul yàgg di yàq suñu temps. Euh, non ah. xam naa naa ko fàttaliku. peut être suba ma kii rek. Moustapha bon man man ah, sama jabar sama jabar moom yooyu moom. moom sama jabar bu nekkee mais lan la gën a bëgg mu daan gën a faral di lekk envie bu mu daan gën a. non non man sama jabar laa dal moom. bu nekkee en état yëpp ay xeetu jabar bu nekkee en état day gën a nice moo tax nee naa ko soo góor ne nii lañ njaboot parce que damay bëgg ngay <laughs> kii daal maanaam. <laughs> non capitaine du ma egg ma damay mu dóor ma. non Moustapha vraiment tey moom. marqué na point parce que non xale yi dañu war a jaboot parce ah, que jur juróom. billaay boo tollee ci jur gis nga ni nga ree. c'est vrai non c'est vrai reetaan bu la yàlla dimbalee nga mën a jur. lu la lii xam nga tax doom mooy trésor doom mooy alal. imagine toi te yow nga ne da ngay xale nga da ngay nekk bu am liggéey. soo ko sëy nga sëy ba pare ni léegi naa toogaat deux ans trois ans soo ko am doom yàlla may la benn doom nga dem planifier. dañuy ning at yi day dem. da ngay dem ba am 40 ans yi boo koy dugg 45 ans ñu ne ah léegi nag pour fi ne nii nga bëgg nag di am doom fekk c'est trop tard. mais boo tollee ci njur jural amul problème. mais gis nga li Fatima wax gis nga jigéen. waaw man jàpp naa ne jigéen même bu nekkul en état de grossesse jigéen nañ koy choisir toujours. Hmm. kon loolu laa mos gëm. jigéen ak ay caprice am ak ay yëpp. ngay dëxëñ góor du ko war a gérer. Hmm. lu mu bëgg da ko war a wuti jox ko ko. Eh. dafa bàyyi kër bàyyi ndey bàyyi baay bàyyi famille ñëw ci <laughs> yaay wax dañ loo a li nga wax yëpp ñun ànd nañ ci loo wax ñoo ko wax li nga bëgg a wax yëpp ñoo ko wax ànd nañ ci yaa nañu para pourtant am na benn parabole bu extraordinaire boo ci waxoon nga ni comme boo amee sa xal waaw gis nga boo ko yàggee def nii te loolu. dama ni jigéen expérience gis nga boo ko yàggee def nii. boo ko yàggee def nii. sa papa moomu ko sa papa moomu moom jigéen soo ko takk ay caprice sama yëpp xalu safara la sa loxo. bu téye ci bi bu la lakkee da nga koy paas bii. bu lakkee nga sànni ci <laughs> bu yàggee këriñ lay doon bu dugal sa poche. <laughs> dégg nga mais c'est léegi nag patience boobu pour nga am ko. il faut nga nekk góor gu am il faut nga am esprit de dépassement nekk góor gu baax quoi laabir. Mm. ni gës nga góor moom toujours dafa war a laabir ci jigéen. Mm-hmm. mais kooku du ma ko wuti gëdd ko lii ko bu faral di jooy. non dañoo ànd li ngay wax. li ngay wax ñoo ko wax loolu bëgg wax ñoo ko wax. su ma yaay sunu invité fii ñu waxtaane loolu jigéen. affaire bi li nga affaire bi du du du du jënd mën nga koo jënd ba indi ko sax mën la dagal ma noonu. waaw mais xam la la bëgg pour mu sentir. attention attention bi nekk Saalum maa ngi nekk dina gis kër gi nii. yow Pape Ousmane doo bàyyi pesa ngay waxaale sa soxla nii. kër géwél waaw jàmm rek la ñuy dox. léeg yokk rajo bi ni lu waay mën na def. Eh, am problème c'est jigéen ñi ci biir kër nag bu demee nag ba nekk nag en état de grossesse. waaye xam nga ni nit ko ëmb nit nag yow dina def lu ne. Mm-hmm. mais da koy comprendre. et puis gën koo bëgg sax affaire bi gën koo gérer. di ko mm-hmm. taxaw di ko assister foofu mm-hmm. toll. ak saa góor ñi léegi dañuy dañuy ah, si si si dañuy jàpp dañuy matu léegi. en tout cas man góor guy def loolu daal man daal bëgg naa góor yi am yërmande ci soxnaam. non yàlla ci fii yàlla ci fii ñoo ko téye. Baousa ngay ngay noppi. yow eh, ma la sa yàlla ci waaye yàllaahu sax te. Eh, yàlla eh, ñu ci ñun ci ñaari yëpp. Moustapha. non ñun ay modèle lañu de. man maa leen laajoon seen exemple léegi merci. man daal bëgg naa la maa ko wax. jigéen daal bu tollee ci am man a jur yàlla kàttanal ko feebarul mu mën a jur doom ah. de leen jur xale yi jur leen ah. xale yar la ter leen aw ngeen ni kii sama doom la maa jur boo amee sa ñaari équipe nawetaan yu baax ah. <laughs> yokk sa yokk sa njëkk sa ki nekk Eliogos ki nekk Liss Dégueur ki nekk militaire ki nekk góol mun la jëlee ci championnat ngeen am ngeen da ngeen di jaamoo yàlla. non man daal jigéen man moom loolu laa ci xam. daal yërëmal sàmmal. surtout raalal. Ah, jigéen dañ koy gàttee parce que jigéen jigéen daal bijou la daal. c'est Fatima li nga doon xaar de. <laughs> non lii laa doon xaar parce que jigéen moment boobu bu ëmbee. elle se sent moche bu seetoo affaire yooyu noonu day gis ne dafa ñaaw ah, dafa kii. comprendre nga dafa ñaaw amatul peut lu war a mën a sol lu bëreeg yooyu léegi nag. foofu noonu jëkkëram bu hmm. amee dara loo xamante ne daf koo manqué rek moom loolu da koy ressent da koy ressentir moo tax sa important foofu ku ku góor ki wàccee boppam suufee boppam di dox si ay yitteem hmm. loolu moom bu ko defee kër gi moom dina neex trop te tonton saala mu ngeeg secret bi dañ <laughs> ko bàyyi xel bu baax

kilifa gu mag koo xam ne xëy na ci jamono yi yeggoon na ci nga koy bàyyiloo xel ci ay bindum ak taxawaayam. sànq Père Sala wax na Serigne Touba mais man comme ni mu waxee Serigne Touba effectivement genre nit yu mel noonu ku mel ni Nelson Mandela. ku ñu tëj 27 ans de prison tey Macky rien fait mais ñële tey dañ doon xeexal seen askan pour libérer leen ñu tëj la si 27 ans te tey li tax mu divorcé ak Winnie Mandela loolu bokk na si parce que dafa génne prison Winnie Mandela ne ko ñëpp yow la ñuy xaar si mbedd yi pour ñu massacrer nit yu weex yi mu ne ko déedéet Winnie Mandela mënul dégg lool mu ne ko tey bu fekkee dafa am ku am lu ko metti man la parce que 27 ans lañ ma tëj te def ma dara nga man ma mën a baale asama yéen ñi nga xam ne kenn defu leen dara donc tey moom mooy njiitu réew njiitu réew yàllaa koy tànn comme li mu wax man dama gëm ni ku nekk sa heure nekk njiitu réew bu jotee yàlla dina la feeñal léegi nag mécanisme la rek nit ñi di def ay campagne ñu lay voteel kon mu jël jéggalut euh, euh, kii Nelson Mandela mu jël lan ci Thomas Sankara Thomas Sankara c'était un soldat kooku noonu tamit nit la koo xamante ni nit ñuy xoolee homme de tenue brutalité violence amu ci woon lenn demoon na ba xam ne euh, son ami là comment il s'appelle encore Blaise Compaoré mi ngi jëm si si kawam xamoon na ko mënoon na ko def dara mais dafa ne comme xaritam la bu demee ko moom même bu ko xamee du ko def dara est-ce que loolu xeetu jéggal la rek xeetu yërmande la ba noonu la ko Blaise Compaoré raye donc ñooñu noonu tey dañu nekkoon fii pour liggéeyal seen réew hmm. malheureusement tubaab yi di ñu monter entre ñun ñuy faaga yoo su ko xoolee tey warul xuloo mais foofu mais nag di nga ko wax nag mu jël kenn nag ci réew mi xanaa koo xam ne war na ko mën a niitu jël nañ sud africain yi dem nañ. ci non sëñ Touba li mu wax. parce que tey man jàpp ah, naa maanaam homme a wax de Ablaye Wade parce que Ablaye Wade tamit man gëm naa ne mi jël Sénégal mag la woon am na yu bëri yoo xamante ne ay nit def nañ ko. mu topp ko ci pétrole bi pas ci pétrole man ci woote maanaam nit ñi ñu ñëw dajaloo toog waxtaan pour jàmm am tey acteur politique yi di yooxu yëpp man loolu laa gëm tey bu leen wowoon ñoom ñëpp mais bu ñu ñëwee dañuy toog gëm naa ne comme si jël téléphone moom personnellement wool di nga ñëw donc loolu noonu mooy li nga wàcc cest à yow fi nga toll nga xam ne xeex ak xuloo ak fitna dafa am foo xam ne fa la yem mission moo gën a délicate ci yow ci bi nga nekkee soldat boo xam ne xëy na bëgg nañu bàyyi ko xel ñu jeexalee ko mission bu gën a délicat moo xam fii wala ñu yónni la. ci yeneen réew mission boo xamante ne tey leer na lañ ci dangay ngay engagé wu ak say homme. Hmm. mais mu leer la ne am na ñoo xam ne dinañ dem. te duñu dellu si. waaw loolu moo ci gën a délicat. mën nga ñu expliquer jox ñu benn anecdote fu ngeen dajee embuscade. am xëy na après boo koy expliqué après dalay yóbbu si beneen état boo xamante ne. mun damay ñu tuuti rek ñu ñu delloo njukkal ñi nga xamante ne ay doomu réew mi lañ. Mhm. nekk fépp ci àdduna mi ngir fexe saxal jàmm. te ñu nekk di ñu aarit mhm. parce que xëy na duñ koy bàyyi xel te am na solo ñu xarit ñoom day aram Touré yi ñu leen di jaajëfal di leen delloo njukkal parce que aussi. waaw am jour boo xamante ni. pèlerinage euh, Popenguine dafa am dëkk bu tudd Témen Témento en Casamance donc Témento dañ ne daal mari fa musoon feeñ. voilà donc finalement comme Popenguine dafa sori par rapport ak Casamance donc gars finalement nañuy defee pèlerinage bi Témento. léegi nag ñu waroon ko def euh, dimanche 11 mars léegi moo amoon benn soldaa boo xamante ni Modou Sarr la tudd man maa ko encadré léegi bon mu dem ba miin ma ñu miinante chaque jour nag dañ doon wax téléphone mais si détachement man dama nekkoon Sédhiou di commandé benn sous secteur moom mu nekk Kolda si intervention bi. léegi jour boobu wax nañ ba samedi 10 mars wax nañ ba pratiquement minuit ma ne ko nag comme suba dañuy dem mission dañuy teel a yow na ñu bàyyi ba dem mission ba ñëw. man Sédhiou la waroon départ cinq heures du matin pour tijji yoon bi ànd ak gouverneur préfet ak yeneen autorité pour ñu dem Témento ñoom ñoo waroon bàyyi ba ay dix heures onze heures ñu ramasser pèlerins yëpp à partir de Kolda wi jaaree Tanaff pour egg Témento donc ñu tëdd nelaw lendemain bi ñun yeewu nañ très tôt dem ba egg ay côté onze heures ñu woo ma ne ma gars yi jógee Kolda laal nañ leen embuscade léegi bi ñu ma waxee loolu nag man ma woo ko téléphone parce que sama xel dafa directement si moom bi ma ko mu sonné sonné sonné ba dugg répondeur jotuma ko ma envoyé ko message ne ko su jotee sama appel na woo. 13h nag biñ ñu demee côté 13h lañ ma tàggee ne si embuscade bi la bokk voilà donc lii ça m'a beaucoup marqué dans ma dans ma carrière de militaire. merci merci merci beaucoup euh, capitaine Modou nek leader du mouvement nit euh, Pape Ousmane on le reconnaît dañ profito également dit euh, sargal di sargal sunu homme de tenue yaa ne sama xarit lañ d' accord na pense à à tous les corps de de de l' armée ak ñi nga xamante ne waa police ak ñëpp ñi liggéey euh, di euh, taxawu askan bi di mhm. nekk foo xamante ne euh, bu nit yi di nelaw rek seen xel yi di dal surtout biir Sénégal ñoom mhm. am nañ ci wàll bu am solo mhm. Père Sala ma bàyyi la ak avis du jour avis du jour <laughs> ndeysaan des fois dañuy jeexale foo xam ne dafay xaw a daw yaram gis nga ñu ko gis rek am na lu ko musa arrivé ci àdduna am mais nag àdduna ak loolu ñoo ànd yërmande ko tax a jóg xam-xam xamlee ko tax a jóg mën-mën jëfa ko tax a jóg parce que nit bu fekkee yàlla dala bind nga dugg ci askan juddoo ci di ngay juddu taamuloo pour nga juddu ci askan wi taaw ñu woon pour sàkku ñu woon pour jur la ci yàlla la neex nga dem ba yàlla la mën a gën bul jàpp ni yaa gën ñi nga eh, yaa gën sa famille mën nga leen a ëpple waaye mënoo leen a ëpp te nit lu ko beewloo ak lu ko bàkkuloo ak lu ko damuloo dafa yomb fasu naaru góor dafa daw génn rëppatal daw tàllal kenn bi fudd ni ma ëpp doole ci àddina waxin la nag jàngin la laaj hmm. benn xale bu góor bu am vingt cinq ans yéeg ci kawam dañal ko def ko lu ko neex traité ko def ko lu ko neex ba fas wi xëexët xale bu góor bu jóg taxaw ni maa mën ci àdduna mbërum làmb mu am trente ans fekk ko fi mu taxaw mu dóor ko kurpañ mu ni tépp mu daanu mbërum làmb bi jóg bàkku ni maa mën ci àdduna dugg këram soxnaam lamsal ko mu daanu. mu daanu. ñu door ki mu daanu ku man soxna si bi mu ko lamsalee mu daanu soxna si ni ah kon nag man àdduna yëpp maa mën yàlla jox ko liir bu weex. soxna si tëdd ba xale bi yeewu di jooy soxna si jaaxle. liir bu weex boobu taxaw di maa lu ci yàlla dolli lu yàlla bind rek maa ci ëpp dolli yàlla doof ko nelaw liir bu weex nelaw ko mën. nelaw jóg taxaw ne maa mën ci li yàlla sàkk yàlla jox euh, boroom kër bu amul dépense hmm. soxla su fajiwul doon nelaw da ngay wulati kër bët set waaye yooyu yëpp soxla si na bi mu taxawee fajiwul écrit bi yàlla bokk muy muñ hmm. inna allaha ma saabiriin nañ leen tënku nag ci muñ da ngay jàng <laughs> mais daari daayira bi ma am tamit si plateau bi muñ mm. dafa am solo mooy écrit bi yàlla bokk mm. nit tooñ la nga baal ko mu tooñ la nga baal ko mu tooñaat la tooñ la tooñaat bi la nga baal ko ah yomb bu yàggee mu sax sagesse la loolu li koy def nag mooy yàlla mooy baax nit kon yàlla ñu yàlla baaxee rek ba nu bokk ci ñooñu nga xam ne am nañu xolu muñ. amiin amiin euh, oustaz Ter Sala mi ngi yaay macha allah ah màggal leen jàngi ah, merci beaucoup merci pour la leçon du jour am na am na solo bu baax maa ngi gis sama sëriñ ma nga fële naan est-ce <laughs> waaw moom sax bokk na ci ci fetas bi <laughs> sëñ Modou Mbacké ñaa ñëw jox ñu léegi xibaaru marax yi merci à toute l'équipe on se retrouve demain incha allah 17h fekkee leen ñu fii indiwaat yeneen rek ni ñu koy defee saa su nekk excellente soirée sur la la TV. productions Production présente la grande nuit du bazin avec Djibi et le Jalikunda le samedi 15 juin au Grand Théâtre National de Dakar. Artistes invités Oumou Sangaré, Oumou Sangaré à Dakar, Baba Nikone à Dakar, Baba Nyame à Dakar et d'autres grands noms de la musique africaine. le Nuit du bazin, Nuit du bazin avec Oumou Sangaré, Baba Nikone, Baba Nyame et d'autres